lena daanaka eh, daa mel ni ah, Pape Kebe suma ma message yi ñu waroon jàllale yëpp daanaka lépp yemb na mhm, mhm. ah, don xam naa incha allah war nañu mën a jublu ci waxtaan bi ah, bi nga xam ne moom la ñu nar a seq ak oustaz tey incha allah mu nar ñu ci jukkil mhm. ñu mën a jàpp ci suñu aliwo darsu tey bi incha allah su ma juumul ñu war a waxtaanee tey wareef diggante jëkkër ak jabar hmm. muy way dencante te mu nekk loo xam ni sujet boo xam ni moom daanaka toujours dafay nekk d'actualité mais rawatina jamono ji ñu nekk ndax tey euh, situation yi xaw nañu doy waar lool lool lool lool donc dinay baax ñuy fàttalante kenn ku ne way denc hmm. kenn ku ci ne ñu lay fàttali li nga xam ni moom moo la war ci ki nga nekkal hmm. incha allah loolu lañu ñu war a waxtaane ak euh, oustaz Oustaz daanaka war nañu mën a tàmbali waxtaan wi bismillah waaw hmm. bismillah waaw alhamdulilahi rabbil alamin xam na comme ni ko sang bi waxee rek day waxtaan woo xamante ni damay wax ni ni la cheikh alxaaji malik radiallahu anhu daan def te daan ko wax jot na ci jamono ñu koy def ci loolu Mhm. ndax Cheikh Mali radiyallahu anhu da daan wax ni mhm. bis bët bu set bu waree julli ji mbaa mu war a jiite mhm. day fexe ñu nafaral ko téere bi nga xam moom la ñuy tuddee laxdari su mën sa nafar téere bi mu nafar baabu cheikh bi ndax xam importance bi mu am ci jamono boobu waaye jamono bi toll moom damay wax ni lii ñu war a waxtaane muy xaqu zawjayni ak ji nga xamante ni moo dox ci diggante ñaari way dencante yi nekk na loo xamante ni euh, feebar bi bi àdduna am bi ci gën a rëy damay wax ni moom la base bi nag mooy dañoo am benn problème suñu problème mooy jëf te yàlla tax suñu départu problème mooy def te yàlla tax mm-hmm. parce ñaari way dencante faw ñu xam ñoom ñaar ñiy dencante ndax mhm. kenn ku nekk xam na responsabilité bi muy engagé wu mhm. parce que bu fekkente ni kenn ku nekk xamul responsabilité bi muy engagé wu loolu mooy waral erreur bi nga xamante ni mooy am toujours muy répété wu ñu baal ma ci waxee ni bu dee li li ñu miin tey koo ci gis muy marié boo ko laajee diw dañ koy maye wala day takk soxna bu dee ku jigéen ku ku ku ku góor ki boo ko laajee danaan day takk soxna soo ko laaj danaan non xale bi laa bëgg rek la lay xale bi laa bëgg amul mm-hmm. beneen objectif bu dul xale bi laa bëgg. Mm-hmm. bu dee ku jigéen ki soo ko laajee danaan je l'aime waaw man damay ni ba ba je t'aime xewee ba léegi ci la lépp temmeeku. parce mm-hmm. que baat la boo xamante ni ñun moom rek la ñuy utiliser mooy base sunu départ. finalement boo gisee ñun bu ñu demee ci mariage bi ba jóge fa xale bu góor bi doon takk soxna génération am yëpp wala ki doon takk soxna ak ku mën a doon am ay moroomam yëpp li ñuy dugal ci noppam mooy ah xaw ma lu mën a xew de mais tebbi waaw takk nga xale bu mool takk nga xale bu jekk yooyu rek la ñuy wax mais mhm. doo dégg takk nga xale bu am diine parce mhm. que base bala woon mais dañ ko bàyyi doo mhm. dégg takk nga xale bu am bu yiw base bala woon dañ ko bàyyi doo dégg takk nga xale bu am yar base bala woon dañ ko bàyyi te yooyu mooy fondation yi nga xamante ni mooy tex nit ki àq gi mu ameel moroomam mu mën koo sàmm yeneen sallallahu alayhi wa sallam dañu ko laaj dafa am mbooloo mu ko laaj ko dañu bëggoon dugg ci soxna maanaam dañu bëggoon takk soxna yonent bi mu leen di diggal sallallahu alayhi wa dani leen maanaam jigéen danañu ko takk ngir taar bumu am mhm. jigéen danañu ko takk ngir wërsëg wu mu am jigéen danañu ko takk ngir askan wu mu am jigéen danañu ko takk ngir diineem waaye da caa teg ni man Moustapha su ma leen di tànnloo tànnloo naa leen boroom diine mhm. parce que diine mooy fondation bi su fekkente ni diine am na rek lépp day daal di mat ñooñu góor lañu am maanaam bi waxambaane yooyu waxee loolu ba pare mu mel ni dafa frustré jigéen ñi nga xamante ni ñoo ko doon dégg ñu ñu ni yaa ñun ay ji ay jigéen lañu toll ci dugg ci néegu sëy ñun ban façon góor nga ñuy digal yonent ni góor moom su fekkee am na diine am ngor am jom su fekkee am na ngor am diine am jom bu la ñaanee may ko gis nga góor ñett yooyu rek lañuy wër ci moom mooy ngor parce que ngor ñu ñu bàyyi xel ni diine daf fi fekk ngor mhm. bi diine dikkee daf fe fekk ngor moo tax yonent sallallahu alayhi ni am ku am ngor am diine am jom parce que nit bu amee ngor du wor bu amee diine dina sédd digganteem ak boroomam su amee jom dana nangoo daan dooleem mhm. mu ne ñett yooyu su dajee ci góor fële zawiju nañ ko may mais nag jigéen gis nga critères yim ci yim ci boole te gën na ko yaatal sax am na feneen fu mu ko gën a yaatalee parce que am na fu mu wax moom yonent sallallahu alayhi wasallam ni bo moytu di di wax góor jigéen yi mu war a moytu moytul ma jigéen ju bëri jàmbat maanaam koo xamante ni foo ko fekk mi ngi jàmbat ay man su ma amoon ay su ma amoon ci ci ranch yi ay su ma amoon chambre à coucher bu mel nii man de néegu diw bi ni mu mel kër diw ga niñ ko tabaxee diw li mu am di maanaam di jàmbat foo ko fekk mi am lu muy jàmbat lu mu hmm. bëgg yeneen sallallahu alayhi wasallam nee na booy takk soxna moytul kooku hmm. moytul it koo xam ni foo ko fekk mi ngi onk hmm. maanaam koo xam ne foo ko fekk rek mi ngi onk wuy sama un sama loos wi un sama wet gi un sama fàllare gi sama li un sama lii sama lii yéen salaay salaam ni nanga ko moytu mm-hmm. tegaat ci wax ni na nga moytu jigéen joo xam ne foo tollu dégg làmmiñ wa koo xam ni foo toll rek dégg muy werwere comme seku yonte neen na ko moytu salaay salaam bo tegaat ci ni na nga moytu jigéen joo xam ni foo ko laajtee ñu ne la fii la nekkoon léegi mm-hmm. maanaam tànk bi dafa gaaw foo hmm. laajte ñu la fii la nekkoon léegi Moustapha ni nanga ko moytu hmm. noonu it la waxee jigéen bi nanga nga moytu yii façon góor mu ni na nga moytu góor boo xam ni du wax dëgg hmm. yow jigéen mi wut boroom kër parce que ni góor gi war a tànnee soxna si noonu la jigéen gi war a tànnee boroom kër gi mu ni na moytu góor boo xam ni lum la wax du dëgg te suñu feebar la léegi ñu baal ma damay wax ni dama dem benn daje benn waaye bindu not di ma laaj lan moo tax sunu sëy yi di gaaw a tas ma ne ko parce que dañ dul waxante dëgg jigéen ñi dañuy naxe mu jeex ma ne ko góor ñi duñ wax jigéen ñi dëgg jigéen ñi dañuy nax góor ñi léegi nag koy naxe ku dul wax dëgg buñ bëkkante rek fa lay yem mm-hmm. moytul mu ni wax ni moytul it góor gu nay mm-hmm. gis nga bi mu waxee ku ku dul wax dëgg ku nay la ca teg moytul góor gu nay nay moom ñun ñëpp xam nañ li muy signifier euh, si hmm. euh, li muy li muy li muy tekki yon salaa salaam ni moytul góor gu nay ak ban Moustapha ni moytul naankatu sàngara góor guy màndi parce que bu xasee màndi dootul ànd ak sagom ba mën na laa lor yon salaa salaam teg ca ni moytul góor guy moy maanaam koo xam day moy yàlla kuy njaaloo Moustapha ni boo xasee xam yow jigéen muy wut boroom kër nanga ko moytu mais malheureusement bu buñ ko toppee yu baree bare la mais malheureusement li ma ci soxla ci tënk rek mooy hmm. li yonent bëgg a jàngale sallallahu alayhi sallam mooy baas ñaar ñuy dencante mooy am biine hmm. mooy base bi man damay takk soxna lu tax ngay takk soxna nga ne dama ci jublu jaamu yàlla dama koy takk ndax yëg naa ci moom am diine ma ànd ak moom jaamu yàlla mottali li ma yonent sallallahu alayhi wa sant yàlla bu ma ci mayee njaboot ma xam ne may na ma ko ci ma yokke o xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy yéene bi mais su fekkente ni man mi góor sama mhm. objectif lenn rek la mooy beauté bi moom laay takk kon naa fexe ba beauté boobu di fa ne parce que looloo ma yëkkati mhm. su dee yow mii jigéen sa objectif mooy intérêt ba fa nekk mu di la ko mënal kon fexeel ba loola sax fa ndax loolu doog nga fay jariñ nga fay jële mhm. doo fa jëlee dara ten loolu danger bi ci nekk mooy day rogalaat di rogalaat ba mooy yàq xale bi judd ci diggante bi loola da koy topp parce que yéene bu sellul ba moom mhm. mooy topp xale bi judd ci diggante bi ba day yàq lu bari ci moom mhm. kon loolu loo war a éviter la yow moom it lu war a éviter la yén salaay salaam wax ni di bépp góor boo xamante ni dénk nañu la jigéen maanaam bépp góor boo xamante ni dénk nañu la jigéen Moustapha nee na àq yi nga njëkk a am ci moom ndaw si an lañ la waxoon ca ca ca bañ la koy may te mooy xam nga dañ la wax ni la sëy pour mu pour mu pour mu dagat pour mu pour mu légal mm-hmm. pour mu légal sëy pour mu légal mag ñi dañ ko tënko tënkoon ci wanaki susa waaw gi mooy kii takk na nekk góor soo nekkul góor sëy mënul am mm-hmm. nuun gi mooy nanga am nafaqa bi ñuy firee bi ñuy wax dépense maanaam ki ngay takk na nga am loo ko jox pour mu dunde ko na am loo ko dundale mooy hmm. nafaka kaa keef gi mooy kusuwa na am koddaay maanaam loo ko wodde mooy ko solal siin gi mooy sukuna na nga am foo ko dëkkal saat gi mooy sadaq na am can yii bu dajee rek sëy taxaw mooy na nga am can mooy can mooy li ngay joxe pour mhm. ndaw si dagan la buñ la mhm. koy may mhm. mooy robo dinaar bi loolu la ñuy tuddee can na nga am can ça n'a rien à nag ak première cadeau jote wuñ dara mook can can moom ngay joxe ko jàkka ja wala fa mu boole ñaari way dencante mu ni su fekkente ni nag yooyu daje na léegi sëy am na léegi nag bi sëy amee ba pare àq ji dox diggante góor gi ak jigéen gi bu dee ku góor gi ñu njëkkee ci moom mu ni bi ci njëkk mooy an yut'imahu mooy nay leel soxnaam na koy jox mu lekk maanaam nay mhm. na koy jox ndékki na koy jox añ na koy jox reer na koy jox ay maanaam soxla yi mu soxla lu ko lu ko dundal moom moom moom la wax maanaam dundal soxnaam yow boroom kër gi la war mooy nga dundal sa bu dee bu dee ñun nag léegi liñ miin gars yi dañ naan demerdeel te jigéen bi su fekkente ni yàlla dogal na mu yor maanaam mu nekk multimilliardaire comme niñ ko mën a waxee su ko jigéen nekkee sax su ko su yore su ne donte yow mi ngi miy këram ndaw si moo la embauché nga koy liggéeyal mu di la fay lam lay fay ci la dépense am war a génn maanaam donte sa soxna. Mhm. moola la embauché yow nga koy liggéeyal yow soo maanaam li ngay li ngay jot yow moom nga ci ci nga war a génn sa dund soxna. maanaam mhm. dund soxna si yow la war. Mhm. te ñun léegi xaw ma foofu mais ñun Sénégal léegi da ngay dégg yambar mu ne laan non man duma ma takk cas social. léegi lan la ci jublu. duma ma takk cas social léegi lan la ci jublu. daw responsabilité. daw responsabilité waaw góor léegi loolu rek la ci jublu mooy daw responsabilité parce que de mi ngi xalaat li mu war a joxe mi ngi mm-hmm. xalaat li war a génn ci moom mi ngi xalaat ak ak ak ak ak yooyu moo tax mu ne du takk ka social. Mm-hmm. te nee naa la ndaw si su dee multimilliardaire yaa ko war a jox dépense yaa ko mm-hmm. war a wodd yaa ko war a dëkkal su feebaree yaa ko war a faj yooyu yooyu yooyu ay droit wam la. moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam jiital nga dundal ko. maanaam dee ko dundal dafa naa ne gis nga bu dee bu fii ci Sénégal nan la boroom kër yow nan ngay yoree soxna sa yow boroom kër gi nga nga bàyyi sa soxna ci biir kër gi ñu togg dëxin ci biir kër gi wala mbaxal wala ceebu keccax nga bàyyi ko moom mi ko togg mu ànd ak waa kër gi reer ci ceebu keccax bi yow nga dem ca dibiteri ba lakkalu sa liibaru yàpp lekk ba pare mel ni ku ko yëgul maanaam da ngay dem ca dibiteri ba lakkalu se liibaru yàpp le mel ni ko yëgul baa nga dem jëndi hamburger wala pizza wala nga yow sa reer moom di nga ko di nga ko di nga ko di nga dem réglé ci sa reer di nga dem jëndi sa reer di nga dem mhm. fexe ba reer yow mais moom soxna si nga bàyyi ci kër gi li jënti wuloo ba xam lii lii nga fi bàyyi mën na ko lekk wala mënu ko lekk ten mhm. sallallahu wa sallam nee na war na ci képp ku takk soxna yow yaa ko war a dundal Mhm. maanaam li li li li soxna si lekk yow mhm. yaa ko ko war jox seeni Cheikh jan si almaktum mhm. da daan wax ni ñun dañu jàng alquran mu ni waaye nekkee théorie rek lañu def mu ni moom bi mu demee ci réewu tubaab yi la xam ni ñun ñun ñoo jàng alquran mais théorie bi lañ def mu ni mais bi mu demee ci réewu tubaab yi la yëg ni nekkee tubaab yi ñoom pratique bi la ñuy def donte jànguñu théorie bi mu ni la yëg ni pratique bi la ñuy def lii ñu ciy tombel ni xoolal ñun da ngay takk soxna fii mhm. da ngay gis ku takk soxna nekk ak soxnaam ba ñu màgget ñoom ñaar mbaa ñu bijjaaw mbaa ñu nekk ay mat yow mi leen xamoon ba ñuy takkante do mës dox ba gis ñoom ñaar ñu ànd xalaatu ko sax moom waa mhm. ba muy labat daal dina yooru di woote yenn heure yi taxaw ci angal yeeg nangam ak nangam jéem koo kar ci resto yeeg yooyu booba day woote mais keroog ba mu ko takkee la ko gëj a yóbbu te xoolal nit ku xonq ki da ngay gis soxnaam si semaine bi dina am jour boo xam ne ñoom ñaar kenn du ci reere ci kër gi bu invité tey soxna si bu git bu beneen semaine soxna si invité ko ñu dem ci benn place boo xam ne donte kaasu ndox lañ fay naan mais dina dina réveillé leneen ci seen diggante mm-hmm. ndaw si di santiraat ni mi ngi ci benn relation moom it muy santiraat ni mi ngi soxnaam mais dama koy tooñe gars yi fii dama naan leen da ngay gis ku ànd ak soxnaam ci xew ñu jugee fa ñoom ñaar soxna si gàddu saak sol ay sol ay càpp gàddu saak boot sa doom ba pare di dox nga jiitu ko yow naan ko waaw sëlle man néew ma fi di la xar dana ci àll bi taxawaalu rek. <laughs> te xoolal li mu yor yëpp. Uh-huh. saak la yor sol ay sol ay kok ay dàll yu yu talon ba pare uh-huh. boot sa doom yow. Uh-huh. yow nga jiitu fële naan ko waaxu si. am nga sax kersa ruus nga wala nga am complexe ànd ak sa soxna ci mbedd mi mu téye sa loxo baa nga téye ci loxoom moo ne de ki yorul ku ko lew nga xam ne day doxaan rek wala day labat mi ngi ànd ak koo xam ni lewu ko da koo te mi ngi dox ak moom ci mbedd mi te Seyd mm-hmm. Cheikh Tidiane Sy daan wax ni kiy def lu xaraam su ko su ko rusul nëbb yow miy def lu dagan bu ko rus a nëbb mm-hmm. ko soxna si dangaa sonn sumil sa dàll yi ma wutal lay carax jëndal ko ay carax mu sol nga gàddul ko dàll ya jël saak ba gàddul ko ni ko indi xale bi mu jox la xale bi nga fopp ko yaay góor arrijalu qawamuna ala nisa tekkiwul ni góor moo gën jigéen li muy tekki mooy góor moo ëpp doole jigéen moo ko war a coiffé soo jëlee bagage yëpp ni ko tegal fii sa loxo nday ma may la doole ndax amoo doole mais da ngay takk soxna kaf sax doo ko def moom kaf boo ñu boo yow boo boo demee ba ñu boo liggéeyee ba wàcc ni mun moom mu ne ci kër gi mel ni ab doxandéem nga jël sa ñaari tuñ ñi xëcc ba muy direeku te boo boo foo fekk ku koy def am na xale bu ñàkk fayda bu muy wootanteel téléphone mu naan ko ay papa ak bébé mu ne eh, eh, eh, chéri maa ngi lay rappelé <laughs> koo ko def sa soxna si yonent nag nee na soxna soosu nga takk dundal ko yow la war mais woddu ko yow la war comme niñ la ko waxee woon ni la mooy tax mooy tax charte yi tax charte yi mat gis nga wallahi jigéen bu jëndalee boppam trente mètres yi jasneer su ko jigéen jëndalee boppam jëkkëram jëndal ko benn mouchoir mouchoir ba moo koy dàqal trente mètres yi mhm. parce que geste bi la nit lu rëy du ko du ko du ko du ko du mën na bañ a neex ci moom lu ndaw neex ci moom mhm. façon bi ñu ko koy joxee lay doon mhm. geste boobu moo ci am solo mais ni ngay neexalee ki nga takkul mais ki nga takk ba indi ko ci kër gi moo ko gën a yelloo. Mhm. sa coro bi nga naan bébé sa coro bi nga naan chéri te sa soxna si ci kër gi du ko dégg. te mhm. ndeysaan jigéen ñi nag ñi ngi gore ci benn côté. Mhm. mooy tey kuñ ci waxaale waxuma maye de waxaale dañ lay may Moussa dañ lay may Paate dañ lay may nangam wax ba d'accord ci saa si jël na numéro Paate moom changé ko dootu ci bind Paate dootu ca bind Moussa léegi. ñi mën nañ aljana la cay bind firdawsi bébé ci nangam nangam nangam changé na tur bi dootul dégg turam mais yow moom ci diggi kër gi ngay toog xëdi et feetu yi eh, ënt lànk nga yow ni maanaam ñoom pour yow loolu ñoom rek la war déedéet déedéet jamono bu nekk ak la mu tombeel del ànd ak jamono ba ak la mu tombeel Cheikh ci mm-hmm. Chérif il Fatimi da daan wax ni sir maa zamanika mais doxal ànd ak sa jamono Mm-hmm. te Serigne Cheikh Tidiane si nee na nduru sa baay nduru sa jamono ko gën. Mm-hmm. parce que boo ko defee doo juum. koddaay mm-hmm. bi daf la war. mu ni beneen bi ci des mooy bul ko bul ko dóor. yeneen nee na bul dóor sa soxna ci xar kanamam foofu nag am na sew-sew. da nga fay kon l'islam am na fu mu mayee góor mu dóor soxnaam. mais dégg nga li yonent bul ko dóor ci xar kanamam. waaw mhm. ah, maanaam dóor yooyu tamit caw lay doon caw du ay kurfeñ de mhm. caw lay doon te caw boobu ñu la koy cawloo ci lan lay doon bu mu doon sa intérêt yi bopp mhm. te damay wax ni man sëriñ musuma gis sëy bu ñuy régler di ko arranger moo xam tribunal la moo xam ca jàkka ja la moo xam ca paaya moo xam ay mbokk yu daje musuma fekke sëy bu ñuy arranger intérêt yàlla ne ca intérêt personnel ba koo dégg muy coow ñaar lay coow waaw déggalu ma faale wu ma su waxee nangam ndaw sa naan day taxawaalu day nangam ñoom ñaar ku ne sa intérêt imagineel ngeen baal ma ci wax bi soxna mhm. si nga tëddal yee ko yee jugal julli mu la ak ah, après dinaa julli après dinaa julli nga nga ko wax tisbaar yow da nga dul julli waaye après dinaa julli waay yaa xam sama yoon nekku ci ku dee ak sa bàmmeel ko ndaw soosu même soxna soosu guddi jot nga nekk ci wetam yëkkati sa loxo teg ko mu ne la damaa sonn xaw ma la dootul dégg des ci guddi gi mhm. da ngay dof doflu bu subaa naa woo sa nijaay bañ ma lay may lii taxul woon man mënuma dëkk ak yow nii eh, di nga kaasa kaas bay ñàkk parce que sa intérêt la mais intérêt yàlla be muy julli gi moom doo ci man musuma gis sëy bu ñuy arrangé ñu naan waa ji ndaw si dadul julleeg dadul woor ak dadul nangam musuma koo dégg ku ci sa intérêt yi bopp te yooyu nag lañ la wax ni la soo ko waxee sa soxna mu lànk ni du ko def tong ko yeddu ko soo yeddee mu lànk tong ko soo tongee mu soo to soo ko tongee fajuwul bu tëddee ci kaw tëddal ci suuf su fajuwul bu duggee ci néeg bi demal tëdd ca saal ba su fajuwul ñu ne la nag caw ko caw caw caw gi mooy wutal ay bant caw ci toogukaay gi te loolu sax xam naa ne moom <laughs> fii ku ko fi def ci kaso bi ngay dee <laughs> moo tax yéen salaay sallam wax ni bul boo ko boo dee du maanaam bul ko dóor ci xar kanamam parce que charia daf la may loolu moo tax mhm. ko dóor ci xar kanamam yéen salaay sallam ni bul ko it di tong ci lu dul dëgg du yoon sallallahu wa sallam bul ko tong ci lu dul dëgg du yoon maanaam boo koy tong na ko tong ci loo xamante ni diine la diine maanaam lala Cheikh Abdourahman jàngaloon ni wa taxwiifihi fii gayri xaqin shar'iyyin moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam bañ nga def ko sa soxna mhm. mooy tong ko ci lu dul dëgg du yoon loolu la di bañ mu ni boo koy tong na ko tong ci loo xamante ni sa diggante ak sa boroom la te yii yëpp boo gisee ni mu ko tegalee li nga ciy jàngate mooy soo ratee départ ba ci lala la yii di dal mm-hmm. mooy bu fekkente ni ba ngay takk takkoo koo xamante ni am na diine mm-hmm. ci la la yii di dal parce que da nga rate sa départ moo tax ñu la koy rattrapé waatal naan la bu defee lii defal lii parce que bu doon boroom diine bi nga takk mm-hmm. coono yii yëpp du la ci fekk mais ñun nag malheureusement gote la ñuy takk dëgg la nag léeg-léeg mu tane parce mm. que bu fekkente ne ñi fi nekk ñëpp amuñu diine seetal ki ci tane ci taar nga takk ko mm-hmm. ndax itamit wax dëgg yàlla eh, takk koo xam ni boo yeewoo yem ci moom daanaka da ngay dummóoyu boobu mm-hmm. tamit wax dëgg yàlla dootu ko jar waaw léegi nag ñu tënk bu bu àq ji nga xamante ni góor mm-hmm. ameel na ko jigéen pour léegi ñu dem nag ci nga xam ni jigéen moom la ameel boroom këram yeneen sallallahu alayhi wa sallam wax ni bépp soxna boo xam ni dénk nañ la sa boroom kër yonent bi nee bi njëkk dafa war ci yow kitmaanul xëdëm nga koy nëbb sa mer maanaam bo meree bu ko sa boroom kër xam mais yow bu sa boroom kër ñëwee yéeg maanaam yéeg toll ci pala ci kii bi ci séenance bi yew nga ñëw dem ca dal yow jigéen ji waroon nga xam ne yow la ñu nga dëbb sa mer yow nga hmm. ñëw gën koo yéeg nekk ca dal ba lu koy régler du yomb moo tax yéen sallallahu alayhi wasallam nee loo mer mer mer nëbb ko sa boroom kër sa boroom kër warul xam sa mer rawatina nag nga wëlbatiku di ko mere moom wax na feneen moom sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni boo fekkee xale ci mbedd xale nga fekk ci mbedd wala mhm. nga fekk ko ci ay moroomam nee na mu nekk mbaami moroomam mbaami moroomam mooy xale yooyu dina ci biir seeni moroom te naan kaay leen ñu def ali fasak kaay leen ñu def oto maay oto bi kii war ma kii jàpp ci noppi wala kii bu kii waree mu daw ba sonn ñëw keneen war mu dawaat ba sonn ñëw keneen war xale boo gis mu di ko def yonent sallallahu alayhi wasallam nee na bul yedd xale bi yeddal ndeyam ñu laaj ko lu tax mu ni yaayam moo ko ko ndax nee na bépp jigéen buy tong sa boroom kër boo ci amee doom mu nekk mbaami moroomam xam nga dañ laa nëbbuloo mer mi yow nëbbatoo mais moom ci jëmmi boppam nga mere te yonent bi nee na bépp jigéen buy tong tong sa boroom kër mooy di tongoo ak sa boroom kër soo ca amee doom mooy doon mbaami moroomam mhm. fu mu dajeek ay moroomam mooy doon mbam tong mooy li ñuy wax léegi da ngay gis sax ñun suñu jigéen ñi da nga ci naan di ana waa ana bi mu naan la moom mi ngi foofu ci biir dama ko aj di loolu la lay mi ngi foofu ci biir dama ko ajji muy def ak boppam bu rëy boobu sa jëkk sa boroom kër yow nee nga ci moom nga yaakaar aljanna yow nga ci moom nga yaakaar barke ci moom nga yaakaar sa doom yi tedd parce que loolu moom ngay ci moom ngay liggéeyee pour am loolu moom nga xas noonu ba toog aj ko yow maanaam kiñ la naan bu ko wan sa mer yow nga mere ko moom ba aj ko fa <laughs> mënoo koo wane te yonti nee na yow boo mere sa jëkkër bu ñëwee bu mu xam ne dangaa mer <laughs> ne wa kitmaanu nafaay ak di ko jariñ di jariñ sa boroom kër njariñ loo xamante ni du ko fonk maanaam njariñ lum dul fonk nga di ko jariñ sa boroom kër gis nga bari na lu jigéen di daj ci sëriñ tariyaax muy lekk xaalisam wallahi jaru ko hmm. mënoon naa ci boroom këram am lam Mhm. te li ngay daj sëriñ bi nga yónnee sa xaalis mu naan la waaw sa sëy bi yëngu na il faut ñu saraxe ah il faut nga yónnee ma bu dee bu dee waa Sénégal dañ la naan jox ma ñetti junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom koy tóolal noonu daal ne nga boole ci ñaari seq sequ tiir ak ginaar gu weex ah wallahi koo ko ci jox doom jalay woo jël ñetti junni yo yónni ko pombiteer ak soble sa ginaar yi lay reeree ba aj ay tànkam tëdd di nelaw mais imaginez tey sa borom kër bi xëy bàyyi la ci kër gi di wër biir dëkk bi biir réew mi di dang-dang yi xëy na amoon na liggéey ñàkk wala amagul liggéey yow yàlla dogal na moom dang-dang ji na bindaale dara diggante bi yàlla xéewalee la fi yow lu tolloog ñetti junni yooyu may wax wala lu tolloog euh, cinquante dollars yooyu wala cent dollars yooyu sa borom kër yegsi xam nga li ni kiy yaakaar a ci rek meew wala mburu ak poñse yegsi ci kër gi ak so coonam nga lalal ko nga lalal ko maanaam fu mu war a tëdd foo xam ni dana sette sell mu egsi nga teeru ko teeru bu daq nanga ko daan na sayyidatuna fatimatu bint rasul mhm. keroog bi ñu koy dénk ali na bi mhm. dafa ñëw ci baayam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko papa yaa gën a xam ni sama diggante ak alin danaa ko séyal ba dee ma fay jële hmm. moo tax Fatima Ali na ko suul Babacar Saddiq nee na keroog bi Fatima waxee loolu ci la yëg ni Fatima mooy njëkk faato alin ndax ñoom luñ musaan a wax rek dañuy maanaam dañ koy dañ koy bàyyi xel bi mu hmm. nee Moustapha danaa fa sëy ba deewoo ma fay jële Babacar nee na ci laa yëg ni Fatima mii mooy jiitu Ali ci bàmmeel hmm. Fatimatu bintu rasul ni rasulullaay gis nga sama diggante Ali ni mu ñagasee ndax avant ñu ko koy may seen diggante dafa ñagasoon parce que Ali ibn Abi Talib bi mu ñëwee di ko labat si aba yëpp jaar nañ fa ci gàttal ku ñëw Fatima danaan la mënuma sëy ak yow bi Ali egsee moom ëllëg mu dikk sax wax ji neex mais daañu yem ci Fatima yu jóg rek mu ne ko yow laa doon seet jarul ngay dem comme Fatima jigéen la Fatima taxaw fi mu taxaw ni ko lu la yëkkati mu ne ko dara damaa ñëwoon pour waxtaan ak yow bëgg laa def soxna soo bëggee nee ma waaw soo bëggul am xam Fatima ni ko déet alin wan bëti ku ëlee mu dem moom it mu ni ko ndokk comme jigéen bëggul loolu Fatima ni ko xëyu ko ba alin taxaw mu ni ko yow ñi ci des sax mën naa leen a digérer mais yow mënuma ci yow dara bu dee man dong mënuma ci yow dara te yàlla bëggul ku teg loxoom ci dëndam ba hmm. Fatima tegee loxoom ci dënnam la la yàlla wàcce dogal ba dogal digganteem ak Ali ibn Abi Talib looloo tax Fatima daan wax ni man yàlla moo ma maye. Hmm. mais li soxla mooy bi mu nee yoon sallallahu alayhi wasallam gis nga sama diggante ak Ali ni mel te bëgg naa fa jur ay sang ndax lu ma fa def yàllaay tax damaa bëggoon nga diggal ma baayam dani ko dee ko xéewal gum yëgul del bette sa boroom kër xéewal gum yëgul colu col col gum foogul mooy hmm. solu ba jekk ba sa boroom kër ñëw ci kër gi waaw mais chéri lu xew da ngeen a am xew nga ne ko xew lan ah, foo jëm sa sañse bi mu ne dama xam ni sa heure jot na rek ma lay xaar hmm. mais déedéet wallahi bëri na góor goo xam ni bu gisee jabaram sañse ci statut yi la koy gisee hmm. statut yi la koy gise wala vidéo bu bu mu gis nit kii wala photo wala yooyu mais bu ci teg bët parce que buy dem xew walay sañse bu egsee ci kër gi bu sonee bu ñu ubbee ba ñuy ubbee bi muy tas musóor géeg di jàpp ci catu garaam bi mbaa catu robb bi benn lay doon mhm. fute sànni fële daal di wut benn robb may luusam cëppoo ko robb may moom kër gi foo ko yónni robb bi dina dem ndax robb bi miin na ruqi kër gépp ndax fu ne dugal na ko mais pour songu solu defaru ba jekk toog xaar sa boroom kër yonent nee na ni Fatima loolu day yokk cofeelu góor ci ci soxnaam Mhm. mu ni Fatima loolu day yokk cofelu góor ci soxnaam ni ko beneen bet di ko bette xéewal gu yëgul day yokku cofeelam mooy li ma la wax sànq ki fi bàyyiwul dara egsi nga mhm. teeru ko teeru boobu lalal ko lal bu ni mel solu sol bu mel mu mhm. toog moom xelam li muy njëkk a xalaat mooy waa man soxna si ma bàyyi ko fi yoruma dara ñëw mu mel ni ku dara xewul nii ak ni mu amee jàmm nga indi napp lalal ko napp bu rafet lal boo xam ni miinu ko lim koy gis bariwul maanaam napp bu miinul couleur bi du na mooy li ma Sénégal naan kër goo fi dem ñi ngeeg nappi gan kaasi gan boroom kër ga du ca naan du ca toog saa yoo ñëwee bu ko xale génne sañu delloo sama kaasi gan léegi boroom kër gi jënd ka gi fay kaasi moom du ci guux napp ba du ca toog boo amee ay gan lalal leen ko ñu taxal ko dem nga fóotaat denc waaw sa jëkkër ji moom lan la ci hmm. nga lalal ko napp bu miinul couleur bi boo xam lim koy gis bariwul mu toog farankulaayu nga raxasal ko ay loxoom ba set la nga naroon a jox sëriñ ba di ko ñaanloo ci sa sëy bii moom nga togg ubbil ko palaat bi mu gis ñaari ginaar yu taxaw benn bu ne jël pause mu ay loxoom jub ko mu nar a mu nar dugal loxoom nga ne ko yaa xam tur woo koy woowee papa may ma dagg bu njëkk bi wala bébé may ma dagg bu njëkk bi wala chéri may ma dagg bu njëkk bi aljana may ma dagg bu njëkk bi mu bakk ay loxoom nga dagg fa mu gën a nooyee ni ko ŋaangal mu ŋaang nga sexal ko ni ko lew na la doom léegi dalal nga xel mi mm-hmm. xam na ni li muy lekk lu lew la nga ni ko lew na la doom su paree nga yëkkati la ca nga nga ba suur nga raxasaatal ko ay loxoom fomp ba mu wow rocci ab enveloppe ci suuf ni ko tey son nga àll lii sa ginnaaw la fi ñëw am mu ne lii lan la nga ni ko dimbalikoo ko ci kër gi bu dee fii ci Sénégal pour lan nga ne ko dimbalikoo ko ci ndox meeg courant bi wa li muy njëkk a laaj mooy foo jëlee xaalis nga ne ko natt bu ma bokkoon comme ñoo jigéen ñi dañuy natt rek natt bu ma bokkoon tontine bu ma bokkoon wala cotisation yu ma doon def loola lañ ma lañ ma laa teggi tey moom lañ ma jox tey ma xam ni yaa ci gën a yell ñëpp mani naa la ci teral yonent nee na day yokk cofeelu góor mm-hmm. wa kitmaanul uyubi nga di ko nëbbal ay ayibam sa boroom kër ayib bum mën a am danga ko ko war a nëbbal mais yow sa xarit ngay toogal waaye bala foo toog day dof-doflu xamuma sax ba ñuy ànd lii taxul woon man lii duma ci ànd ak moom boo jugee bu jugee di xaabar xaabari nii njariñ amu ko boppam bu rëy bi noppam yu nangam yi xas ko xasa xasa xasa xas mënalu ma dara du ma defal dara a ah, amul njariñ wax bay bëgg a dee. ñu arrangé jubóobu leen ñaar nga ànd doo am gàcce. Mm-hmm. est-ce que doo am gàcce moo tax yoon sallallahu alayhi wasallam ni wa kitmaanul uyubi na nëbbal sa borom kër ay ayibam ak ayib bu mën def yàlla da leen a boole pour ngeen suturaalante yonent ne na ayib yi mu am moom sa borom kër Moustapha ne na dégg ko nëbbal waaw waaye yëg nga sa góor lim defa waaw noonu la ñuy jokkalante message yi yow yëg nga sa góor lim defa lu mu defati ah wujju la ma takkal <laughs> waaye war ba mu fiy benn semisam <laughs> bi muy ñëw ci réew mi nekk ak wadd ma di ko jàppale lii la ma mën a fayee <laughs> àdduna ñëpp ay wadd lan fi di ku ñëw wadd nga mm-hmm. kuñ fi jàppalewul doo taxaw fii ci àdduna mm-hmm. gis nga wax jooju nag baat yooyu nga wax rek yiw woo defoon ca loola dala koy xañ Cheikh Alxaaji Mansour radiyallahu anhu nee na yont sallallahu alayhi li mu am li ko ko may ci teraanga ba kenn du ko xep mooy lépp lu mës a def fàtte na lu nday jooram def càmmoñam yëgu ko yemun nu bilaa mu nin dalay may te du la ñaax mais boo defee ñaar fukki at xëy benn bëccëg tudd li nga defoon yëpp perte nga lépp amatoo ca yàlla bu yoboo a nga wut nit mu gërëm la ndax buñ ma ci gërëmul dootoo ci moo tax ayib boo xamal sa boroom kër denc ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na del nëbbal sa boroom kër ay ayibam Moustapha nee tey sàkku ay bànneexam maanaam lépp loo yëg ni neex na ko fexeel ba nekk ca loola sallallahu alayhi wa sallam nee na nga gis benn nit am doom yóbbu ko ci école bi pour mu jàng nee na xel mi naqari dina ñëw ci oustaz oustaz bi del ma kiis bu sëriñ bi ñëwee mu jox ko big ñaanalal ma ko mu ñaan ci big bi jox ko gis nga bu sëriñ bi xoojoon saafara si ci daara ji jox ko du am xel kii si ci àdduna bépp su ko naanoon du am xel Moustapha nee na li ko xañ xel du ci xale bi de ci wéy juróom wu jigéen la ñu mhm. laaj ko lan moo tax mu ni bépp jigéen buy wax ak sa boroom kër sa kàddu di féete kaw sa kàddu jëkkër sa kàddu di féete kaw sa kàddu jëkkër yow boo nee rellet waa ji day tiit ba tëj bunt yi wàcc rido yi yokk télé bi ngir bañ ñeneen ñi dëkkandoo yi dégg wejajajajajajajaj mel ni clé USB bu ñu contact yonent nee na képp ku koy def boo amee doom xel mi du neex da ngay yóbbu école buñ ne A mu ne C buñ ne B mu ne D buñ ne E mu ne Z nga yóbbu ca daara ja naan oustaz ndax mu tane bu ko oustaz ne ba mu ne ta bu ne siin mu ne sa bu ne yaa mu ne kaaf bu ne kaaf mu ne laa lu loo wax mu wax la ca des bopp bi du fi ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na deful dara way jur wa moo ko ko yóbbee mm-hmm. Moustapha neen léeg-léeg nga fekk ndaw ci biiri moroomam mu ñàkk lool kersa parce que am na xale yoo xam nga gis xale boo xam ne yow mi yow mi ko féete mag da nga naan kii fan la juddoo mm-hmm. ndax rusuta taxaw ci sa kanam saaga saaga wu ñaaw rusuta taxaw ci sa kanam wax wax ju bon rusuta jël téléphone am tiim ko wax ci lu bon moo xam vidéo la moo xam sinabam la moo xam moo xam moo xam rusu ko amul kersa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bul ko mere ñu laaj ñu laaj ko lu tax mu ni parce que loolu ko dal woy jurama ko ko yóbbee ndax bépp jigéen boo xam ni da ngay sol lu sa awra di génnee biti maanaam bépp jigéen boo xam ni sa jumbux maanaam sa biir day feeñ sa dënn day feeñ yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na doon nàmpal nitu yàlla doon nàmpal ko am kersa mhm. xam nga léeg-léeg nga dégg nit naan la waaw li ma daj li ma daj ci kër ku ko daj ci kër war a am doom ju baax nangam ak nangam lan moo ma dal fekk dara xalaatul li mu daj nan la ko daje est-ce que liggéey bi sell na mhm. foofu la problème bi ne est-ce liggéey bi sell na Cheikh Omarul Fouti dañu ko laaj bis ni ko yi nga am dafa wax dafa wax cër yi mu lenn ci cër yi mu am man cheikhu ni ma miinee goxi suuf yi noonu laa miinee goxi asamaan yi hmm. man cheikhu nitu yàlla yi bari bari bari kenn féetewuma ci kaw sama digganteeg sama borom tiituma ci dara am na ngërëmu yonent am ngërëmu cheikh benn njaboot laaj ko ni ko loolu nga am yëpp lu la ko may de Cheikh Omar ni ko li ma ko may yëpp day lu mu bari bari li ci ëpp doole sama yaay mm-hmm. sama ndey sama wayjur fala yam li ci ëpp doole mooy sama ndey xam nga wayjur Cheikh Omar maam Adama mm-hmm. métier moo nekkoon jaay ay lujum da daan jaay ay lujum ci buntu kër boroom këram mais su yendoo jaay lujum yi ba ngoon day jël capital bi yónnee ko ñu jëndalaat ko marchandise mu jël bénéfice bi def ko ci benn pot ci suufu lalam mu di ko def di ko def ba mu def ab jamono benn jour mam saay juge ci jàkka ji booba Cheikh Omar ganeegul àdduna mhm. juge ci jàkka ji di ñibbisi ci kër gi dugg ci kër gi bi mu jullee ba pare ba dugg si soxna si ni ko bala ngaa fatu dama la soxla góor gi ni ko mbaa jàmm la ñu bëri foofu dañ ciy def erreur maam Saïd baayu Cheikh Omar nitu yàlla kaamil la. Mhm. nitu yàlla bu mag la. soxna si ni ko dafa am lu ma bëggoon nga jàppale ma ci góor gi ni ko lal la soxna si dugg ci dugg ci suufu lal bi rocc ci pot ba mu diis gann mu xëcc ko yëkkati ko ñaari loxoom sotti ci kaw lal bi ni ko lii laa bëgg nga jàppale ma ñu wañ ma wàññi ko. góor gi ni ko acce ñuy wàññi di wàññi di wàññi di wàññi ba mat mu nekk xaalis bu bari góor gi ni ko ah lii de boo ko yokkee ci commerce bi moom dina gën a avancer xanaa da ngaa bëgg a yokk sa capital mu ni ko déedéet lii sama bénéfice la maa ko daan liggéey di ko dajale lenn dong laa ci bëgg mooy nga takkali ma ci wujj nga dem wuti beneen soxna te soxna si amul benn problème mm-hmm. du dara lu tax mu war ko wax parce que am na njaboot booba Cheikh Omar ganeegul àdduna mais am na doom mm-hmm. mi ngi mi ngi mi ngi boroom këram amul dara lu ko ci naqari mu ne ko nga wutali ci beneen sox nga wuti ci beneen soxna mais mag ñi dañu yéeme xam nga lu ko maam saa ay tontu dani ko lan nga ci jublu maanaam lan nga jublu ci jëf ji nga def xam nga hmm. léeg-léeg nga gis jigéen mu naan boroom këram waaw da ngaa war a maanaam dem ba jàpp boroom këram te yëgu ko maanaam yëg na ni boroom këram mi ngi labat bay bëgg a takk maanaam bu ko bu day jéem a raxas boppam ni muy raxasee boppam mooy day ñëw naan ko waaw da ngaa war a takk beneen soxna moom pour bëgg rafetal maanaam affaire am lay rafetal pour après yeneen yi muy def gars yi dañ naan non moom ak moom moom moom deful lii ndax lii la waxoon man nga gis sax ku jël première kado ñaareel bi di ko yóbbu. Mhm. nee day rafetal te moom leer na ko ni bëggul li mais da koy def pour dindeeku mhm. loolu maam Saïd nag laaj soxna mam Adama lan nga ci jublu li nga def lan nga ci jublu soxna si ni ko. bañ ma la dénkee ak léegi dafa yàgg ma xam la xam ni nitu yàlla pur nga ma xam yiw wi ne ci yow xam leer gi ne ci yow xam barke bi ne ci yow te loolu nekk ci yow yéenewuma ko sama bopp man dong dama bëgg sama beneen moroomu jigéen di ci bénéfice ci sama yeneen moroomi jigéen bénéfice moo tax ma ne la nga wut beneen soxna ñun ñaar ñu àndandoo di jaamu yàlla ci yow yàlla séddu ko sédd ma xoolal jooju wax mm-hmm. yàlla séddu ko sédd ma ci gàttal bi ko góor gi defalee li mu bëgg mooy wut beneen soxna bi ñu indee soxna si ba dugal ko néegam maam Saïd dafa wax maam Adama ni ko der bi may jullee fajar mi ngi sa néeg abal ma ko bala mala fëgg fajar gi soxna si dem di jëli der bi maam Saïd fàtte ni moo ko yónni na ko der bi mu delloo ab buntam soxna si ñëw taxaw ci buntu néeg bi di xaar maam Saïd pour moom dina ubbi taxaw fa lay bi wàcc ci kaw mu taxaw fa bañ salaatu xoola ginnaaw gee ba ñu salaatu mu taxaw di xaar boroom këram hmm. damay wax gars yi ne ni leen yow yónnil sa soxna dugg ci salle de bi rek yónni ko nga dugg ci salle de bain bi waxuma nga génn kër gi de hmm. ne ko jottali ma nangam dugg ci salle de bain bu nee tëll gisu la waa kii gën a gaaw tànk moom nan la may yónni mi ngi noonu boo génnee jël ko taxaw benn cinq minutes xaar la munu ko dala ko fay tegal dem yoonam hmm. chéri booy wàcc nga jaar ci Euh, supermarché bi nga jëndaaleel ma sama pat bi dafa jeex wala nangam nga jëndaaleel ma ko muy wàcc xaw a yàkkamti day dem yoonam mbaa mu ñëw fekk fa ab rang day ñibbisi waa sama ki damaa dem fekk mu xat ma dem damaa dem fekk mu xat ma dem xoolal kii ginnaaw gee la taxaw ba ñuy salaatu fajar ngir borom boroom këram bi ko yónni bi maam Saïd ubbee fajar gi gàddu satalaam yem ci moom dafa tiit ni Hmm? Adama looy def fii mu ne ko yaa ma woon der bi mi ngi kat-kati ci sedd bi mu ne ko boo ñëwee doo ma fëgg mu ne ko teggin ci kilifa mu yónni njabootam njaboot bi ñëw di ko fëgg mm-hmm. du teggin ci njaboot muy fëgg kilifaam mu ne ko nga dem tëddi ba ma jug fajari fëgg la mu ne ko du teggin ci njaboot it kilifaam yónni ko génn te gisul lam ko yónni loolu doo nga tax ma taxaw fi di la xaar mm-hmm. góor gi dem yeesal njàppam ba pare wëlbatiku ñëw fi soxna si taxaw téye ci catu der bi soxna si téye ci benn cat bi mu ni ko jëf ji nga def tey maa ngi ñaan yàlla buur bi mën lépp yàlla na la yàlla may doom joo xam ni fu yàlla yi décider mu fekke doom joo xam ni lu mu nekk yàlla nekk ca moo jur Cheikh Omarul Fouti te Cheikh Omar daan na toog ak yont yàlla Muhammad vingt quatre fois daan na hmm. toog ak yont yàlla Muhammad quatorze fois par jour waxuma gént waxuma jeneer toog di waxtaan quatorze fois par jour chaque jour quatorze fois moog rasulillahi danañ ko toog waxtaan loolu Cheikh Omar nee na def naa ko jont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa lu mat quatorze ans fukki at ak ñeent yoo xam ne chaque jour ma toog ak moom fukki yoon te loolu ndayam moo ko ko ama xam nga léeg nga dégg ñu ni la waa jigéen ñi mënatuñoo jur doom ju baax jigéen ñi tamit ni góor guy jur doom ju baax amatu fi mm-hmm. kooni fi roy leen ci maam Fawade Wele mu ni la maam Ousmane amatu ñoom léegi foofu lañ ko kal waaye la doom yu baax yi yàlla mi ko doon maye mi ngi fi ba léegi ndab lu mu ko def la gisatul mais bis bu gisee ndab lu mu ko def rek def ko ci moo tax yonent sallallahu wax ni yow yow ndaw si fexeel ba lépp loo xam ni sa bëggi-bëggi boroom kër la mu ne yow ndaw si fexeel ba di ko def waaye yonent sallallahu alayhi wasallam nee na maa ngi lay mooy tandikuloo yow mi nga xamante ni yaay jigéen maa ngi lay mooy tandikuloo li gën a yées mu ni maa ngi lay moytandikuloo ngay tere ngay tere sa bopp sa boroom ngay tere sa bopp sa boroom kër maanaam di ko di di ko ko bu ngeen werante werante rek bu ngeen werante rek nga wan ko ni dañoo werante moo tax gis nga lu jar di éviter la parce que boo demee ci téere bu ñuy wax Qurratul Uyun mhm. day jàngale mbiru sëy foofu am na xadis bu ñu fay indi bu yont sallallahu alayhi di wax ni sa soxna bu ngeen jotee tisbaar wala ngeen jotee tàkkusaan mu ni guddi bu leen ci seq mu ni parce que bu ngeen seqee ci guddi bu ca doom sosoo doom jooju du leen bégal yéen ñaar mm-hmm. parce que mer mi lalu moo tax ma ni cey ñun de dañuy xuloo minuit juboo une heure and une heure moo tax boo boo ci amee doom gëriyee lay doon rek da ngay mhm. wax ba eh, non pas xoolal nekkal ci li nga rek ba ma ci li ma ne. maire yow sa wax dafa xaw a kii quoi dégg mhm. parce que affaire bi dafa am début dafa am dafa am fondation. moo sa yéen salaay salaam boo demee ci téere boobu mi ngi lay wax ni bu ngeen boo boo boo werantee ak sa soxna ci tàkkusaan mu ni bu leen ànd ci guddi mu ni parce que ki nga war a ànd ci guddi gi da nga koy préparer ci suba ga. Mhm. maanaam ba nga yeewoo ngay pré ngeen di préparer loolu yéen ñaar ci tooñante ci kaf ci ree ci seq jàmm ci waxante baat yoo xamante ni kenn ku nekk dina sedd sa xol lan moo tax sa diine di la wax mi yaag sa soxna yéen yéen salaa salaam jàngale ni yaag sa soxna bala ngeen a ànd foleen mm-hmm. te boo dee xool sharia dañ lay wax ni benn fo rek lañ la daganalam mooy fo ak sa soxna mm-hmm. ñu ni wala abasu jiñ lay wax loolu rek moo ci génn fo ak sa soxna rek moo moo dagan ci sharia lu dul loolu maanaam mukallaf mi warul fo Mhm. léegi nag après loolu beneen beneen débat la ñu xool lan mooy foog lu dul foog mais yéen sallallahu alayhi wasallam li mu jàngale mooy fexeel ba yow jigéen bul bul bul tere sa bopp sa boroom kër. xadis mhm. sax am na ci bu siiw bu yéen sallallahu alayhi wasallam di wax ni boo ko defee malaayika yi dañu lay rëbb lu yàlla bind da lay rëbb. mais nag na nga bàyyi xel tamit ni yow góor waroo tere sa bopp sa sa soxna. Mhm. loolu it ko bàyyi xel parce que boo bàyyee soxna ci kër gi génn dem ne ci mbedd mi dem ci sas coro mbaa di taxawaalu mbaa am foo jàdd ba jóge fa ñëw ci kër gi ba mëno maanaam mënoo nekk ak sa soxna fekk moom sa soxna am na yitte ci yow amel nga ko àq loolu maanaam bu dafa xaw a xóot da cee bëri loo xamante ni yow da koy ameel àq euh, euh, sa soxna xataa ba ci ànd bi ngeen di ànd yéen ñaar ngeen baal ma ci kàddu gi ànd bi ngeen di ànd yéen ñaar yaag sa soxna yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy góor boo àndeeg sa soxna ba yëg sa bopp te moom yëgagul boppam Moustapha nee na bul ko bàyyi ndax nee na soo ko defee lor ko te loolu àq la hmm. dafa xóot te sew mais hmm. moom niñ ko teree mu tere la boppam ba ba yonent sallallahu alayhi wax ci loolu yow it noonu lañ la tere nga tere ko sa bopp yonent sallallahu alayhi wasallam wax ni yow mi nga xamante yonent bi wax ni bokk na ci àq yi nga xamante ni moom jigéen amal na ko boroom këram mooy bañ a déplacer dara lu mu teg ci këram mbaa néegam maanaam sa boroom kër li mu teg yonent sallallahu alayhi wasallam nee ko yëkkati te amoo ci ndigalam waaw ñun nag dañ ñoo gëmloo léegi xaw ma égalité parité xaw ma droit de la femme droit nangam yooyu ñu ci yooyu la ñuy dund léegi mhm. mais lii ma lay wax nag njàngale sayyiduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam Moustapha na li sa borom kër gii teg yow bala nga koo yëkkati am ci avalu sa borom kër maa ngi def nangam bam ni la defal maa ngi yëkkati nangam bam ni la yëkkatil maa ngi toxal nangam bam ni la toxal yéen sallallahu alayhi wa wax ni bul génn nit sa buntu néegu sa buntu kër borom kër te amoo ci ndigalam maanaam bul génn te tàgguwoo ko xaw ma nag beneen réew mais réew mii di Sénégal moom képp kuy def boo dajee jabari jàmbur boo gisee boroom këram ni ko dajanaak soxna si sëy bu tas yow am nga ca part de ndax Sénégal moom jigéen juy tàggoo fi da ngay xëy liggéey mu ni daa dem seeti ab xaritam daa ànd xaritam añi daa dem yendu jili xaritam bu ñu waxee mu ni moo 16 lay wàcc te boo génnee sa buntu kër boroom kër te tàgguwuloo ko amoo ci ndigalam tànk boo seqi am nga ci bàkkaar tànk boo teg am nga ci bàkkaar te léegi koo ko wax mu ni loolu ay fo information la te wallahi yàlla du juum du jaawale te yàlla du weddi boppam te lim wax du ci jóg mukk yàlla li mu wax du ci jóg te du weddi boppam lu wax dina ko def moom sunu borom parce que ku mën boppam la Mhmm. laa ilaha illa huwa alxayul qayum ndax moom laa taxuzuhu sinnatun wala nawmun lahu maa fi samawaati maa fi l ard mhmm. ku mën boppam la moom sunu borom te dara du ko échappé danga dul raw na te olof nee na sàcc bu dul raw jarta yàqi nga la te ginnaaw li ngay def yëpp fii la la koy fayewaat du du ci sonn li àq jooju sa borom kër gi nga ko amal léegi la la yàlla jox résultat yi ndax doom yaay ñëw di la wan say résultat moo tax sallallahu alayhi wa sallam nee na bul génn te amoo ci sa ndigalu boroom kër isu euh, xisa bu siiw am na ci Moustapha am na benn saxaba bu bu bu bu demoon xare soxnaam ñëw seet si rasulillahi mhm. ni ko sama boroom kër dafa dem ca xare ba te sama baay dafa feebar ñu wax ma ko mu bëggoon ko seeti yonent sallallahu alayhi wasallam ko ndax tàggu nga ko mu ni déedéet mu ni ko toogal ba mu ñëw ndaw si dellu toog ñu woo ñu ñëw ñu ñu yónneeti ko ndaw ni ko sa baay feebar ba dafa gën a garaaw mu demaat Moustapha ni ko tàggu nga ko mu ni déedéet mu ni ko demal toog ñu xëyaat ñëw ni ko sa baay mënatul wax mu ñëw ci rasulillahi nabi ni ko tàggu nga ko mu ni mu ni ko demal toog ñu xëy ñëwaat ni ko sa baay faatu na <laughs> yow sa soxna na papaam na papaam girib girib girib na ko papaam def woo ko maanaam mu yëg ni papaam daa giri bu koy seet du la tàggu boo ñëwee naa ko amee la daa eh, ma fontoo de sam papa nga naan eh, te xamul ni kat fi mu toll moom pour moom papaam moo ëpp ndogal ci yow te yow ya ëpp ndogal ci moom papaam bañ nañ ko ba ba toogee dañ ni may nañ ko muudu mhm. may nañ faatu may nañ ko móodu yàlla ni kon móodu responsabilité faatu móodu laa koy laaj kon responsabilité baay bi gisoo ci a sax dañ la naan doom bu góor soo ko yaree ba mu am dix-huit ans wàcc na la mhm. maanaam bu majeure góor bu majeure léppam wàcc na baayam léegi nag la la la waroon baayam ci moom moo wëlbati war ko moom ci baayam mais jigéen dañ la naan tànka mayewoo ko ba boroom këram jël ko wàccegu la dundam wàccegu la loolu mooy soo ko mayee boroom kër ba ba boroom këram jël ko léegi nag dégagé nga ci say responsabilité dundam wàcc na la léppam wàcc na la léegi léppam boroom këram la war Moustapha mu ñëw ci yonent yàlla sallallahu ak ay jooyam wax ba yeggal Moustapha ni ko sa jëkkër ñëw na mu ni ko déedéet mu ni demal toog ndaw si delluwaat ca këram toog xoolal kuñ ni sa baay faatu na sa baay feebar na sa baay gën naa feebar ba sa baay faatu na sallallahu alayhi ni ko demal toog gis nga bi boroom këram ñëwee mu nettali ko loolu lépp boroom kër gi ni ko nanu ànd dem fa bi ñu jaaree ci rasulillahi di ko tàggu Mustafa dani fi ñu toog di wax ak ñoom sallallahu alayhi wasallam fi la jibril alayhi salaam yegsi ni Mustafa téenal nabi gis kër gu taaru mu ni jibril la mu ni ko yàlla moo ko décoré baayu ndaw si nga xam ni dégg ndigalu boroom këram moo ko dëjoon ca kër ga ba baayam faatu ci toog gi mu toog ci kër gi moom la yàlla dëgg ba jéggal baayam léegi bu demoon benn du jéggal baayam moom du am ngërëm borom këram yàlla dina ko ci bu boole ci léegi toog gi mu toog ci la yàlla jéggalaale way juróom woowu ba yóbbu ko ci barab boobu moo tax sallallahu alayhi wasallam wax ni bul génn te tàgguwuloo sa borom kër waaw damay dem nag la la gaay la la jigéen ñi wax damay dem munoo maa dem su fukki moroom mënuñu maa teree dem Seydou jaam moomoo ma waaw boo dee góor gu bari kersa moom daanaka wax ji du la ci fekk bu wax ji danay jëm kaw nga ne ko demal demal demal parce que bugguloo sax ñu xamal la léegi nag moom loolu lay loolu mu jàpp ni danga ko ragal e, sama benn sëriñ daara dafa ma waxoon ni ma jigéen jigéen bu boroom këram ragal amul chance doom bu ba waajuram ragal amul chance taalibe bu sëriñam ragal amul sens. Mhm. dégg nga ñetti waxi. ko. bu woy maanaam jigéen bu bu boroom këram ragal amul sens. Mhm. doom bu woy juram ragal amul sens. Mhm. taalibe bu sëriñam ragal amul sens. ma laaj ko lu tax mu ni ma jigéen bu ko boroom këram ragalee du am barke. doom juñ ko fa jur. te gis nga. li gaa yi jàpp ni mooy doom ju baax du doom ju baax ñun léegi dañu egsi ci état bu jàpp nañ ni doom ju baax mooy doom ju am xaalis jàpp nañ ni doom ju baax mooy ku yor ay millions. Mhm. déedéet wallahi déedéet xam nga mag ñi luñ daan xënte doomu nitu yàlla. Mhm. jur doom joo xam ni bu nee allahuma rek yàlla dog jur doom joo xam ni ku jàkkaarloog moom say bët wàcc suuf. ndax rëy ba bi muy àndal loolu moo nekkoon seen seen seen maanaam loolu moo nekkoon seen objectif seen bëgg-bëgg ñun nag mm. li ñu tombeel mooy xaa yonti yàlla koppar ñun moom la ñuy jaamu yonent bu bees boobu mm-hmm. yonent yàlla koppar ñun ci lañ nekk mooy boo ko amee tedd soo ko amee yaa baax soo ko amee yaa fi gën doo dégg sax ku ñuy tagg mukk ba tagg ko ci jukko diine def katu lu baax la borom baax la borom teraanga la maa ngi ko wax benn mbokk dama ko lëjal nag <laughs> benn oustaz bu nekk Dakar ma ne ko ma ne ko du du du ngeen statut mukk ku yorul ma ne ko yéen yéen ñii ma ne ko du ngeen statut mukk ku yorul muna bàyyi li nga wax ma ko ah, dama leen di seetlu rek dama xam ni nan ngay nan ngay maanaam man diine rek ma ñor te doo statut mukk nit musuma leen a gis ngeen statut ab imam musuma leen a gis ngeen statut boroom xam-xam ministre député maire boroom alal milliardaire millionnaire ñooñu rek ngeen di te ku ngeen ci koo ci tudd mu naan la borom teraanga def katu teraanga la ana sunu borom tabarak wa taala mi nga xamante ni leer na la leer na la ni li ngay dàq nii yàlla moo ko fa def te doo ko dab boo deful ndànk te boo wàññee ko li nga fi bàyyi woon doo ko fi fekk mais bi ñu yàlla teg ñun ñu tombeek moom mooy yonent bu bees boobu mu yont yàlla xaalis moom la mm. Seydi Cheikh Ahmad Tidiane si al Maktoum doon wax ni yàlla bu yónni waatoon ab yonent fii ci àdduna te joxu ko xaalis kenn du ko topp preuve bi kay yomb na mooy ñun ci ñun fi mu toll nii ñu baal ma it ci li may bëgg a wax nekkal sëtu Cheikh Al Hadji Malick anhu direct te yoro xaalis kenn du la ñaan weer gars yi pour ñu ñaan la weer faw nga sol basin bu dàq biñ sol yor téléphone bu gën a cher biñ yor Mhm. wàcc ci oto bu dàq bi war dëkk fu dàq fi ñu dëkk yor jongama ju dàq jañ yor bu ko defee ñu naan yii bi kay moom sama sëriñ bi kay moom sama sëriñ bi otom bi sama sëriñ bi jasneeram bi sama sëriñ bi ñu ñëw nag jël weer bi mais bu dul loolu doom kenn du la topp parce que yoruloo xaalis te gaa yi kooku la ñuy jaamu mhm. sunu sunu cheikh alxaaji mar radiallahu anhu dañu ko laaj bis mag ñi dañu ko Maodo réew mi sëy yi dafa bëri problème déggal ca jamonoy Alaaji Malik ñu ni ko sëy yi daa bëri problème mhm. est-ce que doo ci wax Cheikh Malik ni ah ndaxam sëy am na fi mhm. ndaxam sëy am na fi ñu ne ko lu tax mu ne dafa mel ni nag réew mi shibhu nikah moo fi ëpp nika maanaam lu nduru sëy moo fi ëpp sëy mhm. ñu laaj ko lan moo tax mu ni sëy su fekkee dafa am benn illa boo xamante ni moo tax rek tuddatul sëy maanaam man kat maa ngi dugg ci mariage bi lu tax nga ciy dugg bu dee ñun góor yi yenn góor yu yambar yi ma ko sañ a wax da naan waaye booy sawaay temps yi ki ma benn xale laa tebbi ma nga Amérique booy loolu la gars yi wax xale baa ngi Amérique booy yi non sawaay kay bàyyi la xoola kooku dama koy négocier rek na fexe man dugg kaaw bi yooyu lañ def ci seen bopp wala ka ki ma tebbi booy li mu yor en tant que góor léegi yow ay la boobu moo lal sa sëy mooy daa am intérêt bu ko bu dee jigéen it kazalika sama far wi ci kaw la nekk sama far waa Canada sama far waa nga sama far waa nga Amérique hmm. moo ma yónnee téléphone bi moo ma yónnee lii moo naa fexe mu yóbbu ma naa fexe nangam parce que am na ay la bu ko hmm. yaay di la ci jàppale da ngay gis xale bu jigéen bu ndayam naan diw mii di la bëgg moom na la leer ni dalay sonal rek ndax amalu la njariñ mënalu la dara mm-hmm. te diwa gi nii topp la bay bëgg a de di dagg buumi gàcce yi ndeysaan kon yow sëy bi da nga cee pour ñu daggal la sa buumi gàcce moo tax fa ngay mujj mooy buumu gàcce gu màgg buumu bato bu gàcce ba moom lañ lay yeew waaw ndax da cee dugg ba la nga ca yaakaar boo deful ndànk doo ci fekk dara te fa ngay mujj neex moo tax Cheikh Malick waxoon ni sëy bu ko benn illa illa lalee rek Maodo ni tuddatul sëy lu tax mu ne parce que su fekkente ni am na illa bu ko lal léegi sibuhu nikaax lay doon day duru sëy rek maanaam lim la bëgg a wax mooy sëy intérêt du ko lal mooy li ma la wax ca njalbeen ni la base bi mooy ñu ànd te yàlla tax. Mm-hmm. Cheikh Malick joxe woon ci exemple bu doy waar Maodo dafa waxoon jamono mi ngi ñëw ñett moo ëpp valeur ñett Cheikh Malick ni jamono ngi ñëw. julli ci sa biir kër mhm. mooy ëpp valeur julli ji ca mbooloo mhm. mu waxaat ni jamono ngi ñëw takk jabari gone takk jabari mag moo koy gën mhm. mu waxaat ni jamono ngi ñëw alal joo ci sa poos mooy ëpp valeur joom joo jur ci sa geño bi ci digg bi nag moo ma intéressé mooy takk ndax loolu la ñuy waxtaan mais dinaa ci boole ñaar yi pour leeral ko li tax mu ne jullee sa kër mooy ëpp valeur jullee ca jàkka ja yéen salaay salaam moo ñu jàngal ni julli ci mbooloo da am ñaar fukki yiw ak juróom-ñaar ki jullee këram am benn Maodo ni jullee sa kër moo ëpp valeur jule ji ca mbooloo ci jamono bii di ñëw léegi imagineel yow mi dem génn sa kër dem ca jàkka ja di julli mm-hmm. nga julli ca jàkka ja am ñaar fukki yiw ak juróom-ñaar laataa ngay egg sa kër jëw nga fi ba perte lépp mm-hmm. parce que léegi gars yi dootu ñu jëw ci biti jàkka ji ci biir jàkka ji la ñuy jëwee ndax dañuy julli ba sëlmal ñuy jëw ilimaan bi dañuy sëlmal rek nga gis oh non imaam moom tey wax dëgg yàlla taxawaayam bi dafa yàgg trop lii war nañ cee wax de nit ñi wératul nga dégg ku naan bëri tiitar rek kenaan imaam ci boppam moo bëri da bëgg daraja kenaan dañoo bëgg njiit yow li nga julli léegi këppaat nga ko léegi ci buntu jàkka ji yóbbu dara sa kër waa léegi ki toog ci biir néegam julli ba yeggal denc benn yiwam <laughs> moo la de. moo la ëppale. Mhm. am dix mille par weer sooy am dix mille par jour. may am mhm. cent mille par jour cent mille yu ma am taal dix mille yoo am denc bu weer wi dee maa ku yëppale xaalis yaa ma yëppale. Mhm. parce que yaa ngi denc yow man maa ngi taal noonu la loolu la Cheikh Malick te ñun ñëpp nangu nañ ko ni moo am Cheikh Malick waxaat ni jamono ngi ñëw alal jooyor ci sa poos mooy ëpp valeur doom jooju ci sa géño da am doom yónni ko ci bitig bi doo ko mën. Mm-hmm. fompal sa fompal raxasal leen ma oto bi non pas xaaral xaaral mat Real Barça bi jeex raxasal leen ma oto bi c'est pas xaaral ñu seetaan sketch bi xaaral ñu seetaan série bi raxasal leen ma oto bi pas xaaral calcio bi jeex raxasal leen ma oto bi pas xaaral ma dem entraînement xaara nangam nga génn yam ci ponkal muy dox nga ne ko doom kaay mu ñëw nga ne ko oto bi laa bëgg nga raxasal ma ko mun la père 3000 la de. nga ne ko jël amul problème raxasal mu raxas nga fay ko trois mille trois mille yi ëpp valeur wala doom yi ëpp valeur ñetti fan ñu naan la paama ñëw nga mhm. génn fay trois mille ñu raxasal ma am déet mhm. kon li alaaj Malick dëgg la mhm. Maodo nag wax bi ma intéressé jamono ngi ñëw takk jabari ndaw takk jabari mag a koy gën te yëpp ñett yëpp ay xadis yont yàlla Muhammad wax la Mustafa na takk leen ndaw sallallahu alayhi wa sallam mu ni ndax ndaw takk ndaw maanaam yonent moo digle ñu takk ndaw mu ni nag ndaw moo gën a mën a déplacé wu te moo gën a mën a fo mm-hmm. sëñ Maal ni jamono ngi ñëw nag takk soxnay mag moo gën takk ndaw xam nga lu tax xoolal ci jamono bii ñu nekk Seydi mm-hmm. man damay wax ni génération bii wallahi wal kitaab bi quatre-vingt-dix-neuf jëm kaw ku ci yàlla nattu nga am ci soxna yi maanaam mbugal gënu koo rëy mm-hmm. mbugal gënu xale yi ñoo jaan ju am góom ñoo yem xam nga jaan ju am góom kenn mënu koo téye fu ne lay bi tarñu ko man ñoo yem mm-hmm. wallahi day bi tarñu ko rek dara nga ci mënul dama koy wax léeg-léeg ci daje yi nit ñi di di di ko def di di di di ko jàppee reetaan man leen li ma leen di wax dee leen ko top mm-hmm. jamono bii ñu toll man gisuma ci xeet wi génération bi xaw ma ñu weesu nag waxuma mais génération bii ma tombel man ma ne leen gisuma ci kuy jur balekatu jàkk waxuma la ak ay muxaddama ki ay ilimaana ki ay nitu yàlla yooyu moom xalaatuñ ko bale jàkka marta bala mais gisuma ci xale yi ku ko jur mhm. jéemuñu sax calculer yooyu ñoom koo ci naan ay doom ju baax ak yi ay ree la koy def danaan loolu année année année soixante la yooyu la lay wax yooyu ci siècle yu njëkk yi la yooyu dafa xewwi Cheikh Malick nag ni jamono gi ñëw takk jabari mag mooy gën takk jabari xale gis nga sama benn wóllare dañuy waxtaan ci wàllu mu bëgg sax nag ñu ciy waxtaan ma ni ko Mm-hmm. boo gisee ku yaakaaram tas takku xam nga ku yaakaaram tas mm-hmm. boo ko takkee fa lay dee te expérience ba muy am pour pour pour pour ngeen ànd te yàlla tax fekk ci mm-hmm. xale bi bu dee xale yi dañ naan sëy bi dañuy mën a sey sëy ku mënuñu koo sey ma teg ko fi li la koy wan mooy téeméeri mariage yu ñu takk janvier février mars avril ñu régler problème mai juin mu ñibbi seen kër juillet août mu ñaan baat septembre mhm. ñu may ko baat mhm. lépp ci benn année bi lay doon maanaam lépp ci benn année bi lay doon fi mu taxawee nii sëy bi am lépp ci benn année même pas six mois dina ko fi mhm. sëy ba tegaat fa sëy ba demaan na ci bopp ñun dama wax ne ñun benn feebar lañu am léegi suñu génération jigéen ñi ñu tombel nañ ma baal mais benn nattu la ñu am muy sunu sëy yëpp sëyu sénap rek la nan ko sénap après jeex na nañ la wane jouru mariage bi nga toog sa sa sa sa lalu yaay wala sab lal tegale sa ñaa say tànk jël benn kol bu weex def nii say ñu photo la nga sénap ko nii daal ni xale bi jar na kii nii daal di jël sa nu mu tuddati yooyu eh, seen kii yooyu ñu li ma ci gën a metti nag dem jëndi kurusu fanweer yi yor ko ci kii bi di xëcc koo xam ni doo julli sa jëbi du la suuf xamoo nu nuy jàpp xamoo nu koy defee tan la tay lañ lay maye nga jënd kurusu fanweer goo xam ni bu mm. paayee jugee jàkka ja doo xam fu kurus gaaw bu ñuy ñëw doo xam fu kurus gaaw sëy bi daal moom nan ko sinap rek pare ci buñ ko xasee sinap mariage ba jeex na mais mm-hmm. robb ba pare nañ ci maanaam léegi kooku nan ngay yaakaaree ci moom meññeef boo xam ni ëllëg mooy jariñ réew moom mm-hmm. loolu nag la ñu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon bañal moo tax mu waxoon su ngeen di takk soxna tànn leen soxna bu am diine donte yi ci des yëpp mën nga koo takkee soxna mais tànnal soxna bu am diine hmm. soo xasee tànn soxna bu am diine yonente nee waccoo sa loxo maanaam dóoroo sa loxo ci ëkk hmm. ci gàttal daal bu bu ñu bëggee tënk dañuy wax ni lii hmm. mooy li ñu mën a tënk ci mbind mi dafa xaw a bari mhm. lii mooy li ñu mën a tënk ci mhm. diggante góor ak jigéen l'essentiel bi mooy mhm. kenn ku nekk xam ni ñoom ñaar li boole ñoom ñaar li leen boole seeni diggante mooy taabbudan bi wajhillahi alkarim jaamu yàlla suñu ko jàppee jaamu yàlla mu simple suñu ko jàppee lu du yàlla mu jur coono bu defee xam naa dañuy taxawandi foofu bu fekkee am na ay laaj ci ki am yuñ ci mën a tontu rek incha allah taala ñu tontu ko. lu ci rafet nag ngeen xam ne borom la lu ci dëng ngeen xam ni e, bëgg a taxañ ko la rek ak bëggoon bëggoon mu rafet bëggoon mu jub liñ ci bindoon dafa xaw a bari te xam naa su ma ko toppee day gudd ba mu ëpp moo tax ma juqat juqatee ko noonu rek e, ñu bàyyi rek incha allahu taala bu ci amee laaj yu ñu mën a tontu rek incha allah ñu tontu. ma macha allah oustaz ah, wax dëgg yàlla. <laughs> comme ni nga ko waxee rek buntu la boo xam ni moom daanaka mun nañ ñi nekk di ci wax ba suba incha allah te du jeex mm-hmm. euh, li nga fi jukki moom macha allah euh, am na solo lool lool lool lool xam sañ sëñ Pape bu fekkee ni am na commentaire boo ci def rek wala bu fekkee ni aussi mbokk yi am na ku ci am question boo xam ne bëgg nga ko poser Oustaz Abdul Aziz incha allah nga nga jàllale ko rek incha allah yeggali. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf euh, Haji Abdoulaye Ah, jërëjëf oustaz li nga fi waaw li nga fi indi macha allah fa tabarakallahu xanaa balaa may eh, xëy na ci kanam dinaa laaj. mais mhm. commentaire bi ma ci bëgg a yokk rek. Mhm. moom sax junj junj na ko. Mhm. am nga dañu nekk jamono ji nga xamante ne ah, daf ko wax parce que man mës loolu mësaa ko dégg kenn ku ne moom dafa ah, ah ndaw ndaw si toogoon foofu daf ne moom de asla teg. ndaw si ñoo takk daf ne moom aas teg. xam nga waxu aas boobu li muy indi man dama jàpp ne xëy na de mooy li mu wax jono yonent jamono yiñ toll la comme <laughs> yonent yàlla xaalis moo <laughs> fi ne mm-hmm. mais doomu aadama dafa réere réere waaja la mu yor ci poosam mm-hmm. mais moomu ko mm-hmm. yàlla mayewul yàlla dafa dénkaane ah, bu fekkee ne nag da nga jël sa sox sa doom bëgg ko jox ki nga xamante ne xëy na da yaakaar ne kooku yore na alal bu dul jeex mais mm. yàlla mit ko dénk bu ko jëlaatee kon nooy def da nga daan mooy mooy mooy li am mm-hmm. sëy yi nga xamante ne waa ji dem na ba mënatul mm-hmm. ñu ne ah ma dell na ma delloo sama doom moom mënu mënu mënu ko sax yor et mm-hmm. pourtant ba mu koy mën di ko def ay waaye coow mësul am di xëy na di dellu it di ñaax surtout ñun ñi nga xamante ne ñoo fi ne xëy na Sénégal moom rëccu nañ waaye ñun ñoo fi nekk ak suñu njaboot ñu fàttali surtout suñu doom yu jigéen ñi li ci li ci ëpp mooy bu ñu fàtte suñu diine mm-hmm. Mm-hmm. ne ñu leen saxal ni ni ko sëñ Ahmed di classe yi muy jàngale ñu fexe ba njaboot yi di fekkee ci classe yooyu mm-hmm. parce que gis nga classe yooyu tamit éducation islamique euh, euh, civique islam sax am na bu ko defee xale bi dina fa jëlee lu bari te it ñuy toog di waxtaan ak suñuy doom. Mhm. xam nga xale yi Amérique ñoom dafa mel ni que dañuy judd rek muus. parce que xale léeg-léeg di nga toog dina wax wax boo xamante ne mag ñi dañ naan ah kii xanaa mag a ko yónni xam nga xale buy dem ba wax foofu rek. Mhm. fa ngay waxee ak moom rek da ngay wàcce sa bopp ba ci age am. Mhm. waaye mën nga ko ci par nànk-nànk. nànk-nànk mel ni ko yore sa potek di ko nank bu tayee xëy na nga nga sotti tuuti nga bàyyi ko mu dem dalu bu subaa nga ñëw dalu nga ñëwaat nga ñëwaat nga ñëwaat ba keroog xëy na mm-hmm. niñ ko ni ko oustaz waxee xëy na mm-hmm. li suñu borom namm ci yow bu fekkee mm-hmm. ne yaaja liggéey na la liggéey wut nga soxna bi nga xamante ne au moins le minimum sax dina bu waxtu julli di nga ko gis mu jug dem jàpp xam nga kooku dafa neex si xol waaye soxna boo xamante ne buñ ne kaay ñu kaay ñu julli mu naan xaaral ma déglu ma xaaral ma pare way way coon sek bi dafa neex de way waay wala wayu euh, euh, dama yàlla jéggal sax yàlla jéggal wayu nong nongo lu nuur dégg nga way bu bees bi xaaral mu jeex ñu daal di kàbbaat ah, ah. parce que yàlla bi mu lay jox julli gi daf ko daf ko def daf ko jox waxtu néew la à différé parce que yow bu la différé woon kon tey doo fi yegsi jéglu nag ci wax bi oustaz loolu rek moo amoon li ma ci bëggoon contribuer dëgg la euh, di daal di ubbi micro bi incha allahu rabbi dëgg ah, euh, euh, point bi ma ci gën a intéressé sax booy xool mooy oustaz moom la ubbee ci début bi mooy que ni yéene bi ñuy am bu ñuy dugg ci ci ci ci sëy moom hmm. foofu la problème bi yëpp suñu problème yëpp fa la jógewee parce que boo gisee ci wax bi mi ngi wax ni ci début bi nay doon ànd ngir yàlla rek tax ki nga xam ne da ngay mm. ànd ak moom ngir mottali ci sa diine kenn ànd te yàlla rek tax parce que dama mos a dégg ci waxu Serigne Cheikh mu ni mu ni ki nga xam ne da ngay takk da nga koy takk te munoo benn at ñaari at après nga ne ko nga mun ko xool jàkk ni ko sama jikko yewoon na ngir yàlla ak yow nee na kooku du soxna nee na kooku du soxna jëlewoo ci lenn ndax loolu loolu loolu moom taxul ñuy wut soxna te damay dama dama damay damay dégg aussi parce que léegi yaa ngi wax ci le fait que euh, mbir moo leen di dugal ci nit ki bu fekkee ni mbir moom mu nekkatu fu ñu génn parce que li nga xam ni moom la yàlla wax ni moom la ñuy duggee ci ci sëy jiitaluñu loolu parce que li ñu siy jiital mooy jaamu yàlla parce que sëy il faut ñu comprendre que ni jaamu yàlla la acte jaamu yàlla la boo xam ni yàlla moo ñu digal moo ñu digal ñun xeetu xeetam mu ñu def ko donc bu fekkee ne yow jàppe woo ko jaamu yàlla waaw waaw nga jàppe ko benn peut-être benn passe-temps wala benn affaire boo xam ne daal man naa ci jaar rek wala loo xam ni benn benn phénomène benn mode donc li nga xam moo war doo ko ci def te aussi beneen point bi nga xam ni dafay dellu ci jàng mooy que ni ñàkk xam li nga xam ne mooy wareef yi ñàkk a xam wareef parce que ki nga xam ne tey du day dugg ci sëy te xamul ni jaamu yàlla la te yàlla moom bépp jaamu yàlla bu muy def dafa bëgg bala nga koy def yow jaam bi nga xam li ngay def lu mu doon parce que yàlla moo ni xam leen ma balaa ngeen may jaamu donc bépp lépp loo xam ne dañ koy def ngir moom suñu borom war nga xam lan mooy cëslaay ba lan war nga mën a xam lan moo tax suñu borom ni lii def leen ko donc nga xam li nga xam ni moo la war li nga xam ni war nga ko def li nga xam ni moo la war envers ak sa soxna li nga xam ni sa soxna war na ko envers ak yow bu ko defee doo mun a mm-hmm. juum du ma wax sax juum waaye doo mën a def loo xam ni loo warul def la parce que juum moom daanaka suñu borom moo miina euh, moo mooñaale nit ki ak juum waaye bu fekkee ne da ngay jaamu yàlla te li ngay def nga mu nekk li nga xam donc bu boobaa lu bari dina dina dina dina mën a sotti ci ànd bi ngay ànd ak euh, loolu euh, ndaw si te bu boobaa loolu dafay dellu siwaat ci li ñuy wax rek muy ñu dem jàngu ñu dem jàngi ñu dem gëstu ñu dem sàkku ji xam-xam waaw muy man muy ñun ñëpp incha allah nga xam ni euh, sëñ Cheikh da ko daan wax ni euh, moom daanaka bi ngay judd ba bi ñu lay dugal ci bàmmeel seconde bo perte rek te jàngoo ci dara boo passé te jàngoo ci dara rek daanaka jàppal ni perte nga waaw perte maa la waaw maa ngi jégalu nag ci kàddu yi incha allah bu fekkee ni am na ku. xanaa li ci bëgg a suñu genre yi bu bi nga xamante ne. ndéem yaa sax yaa génne dépense jox soxna si mu togg bu la mm-hmm. ba pare gërëm ko sant mm-hmm. ko te ñaanal ko mm-hmm. dam ko mës a dégg ci euh, euh, sëñ Abdou Aziz Daba radiallahu taala anu soxna Xadi bismillah waa Pape maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, waxtaan bi am na solo torop sëñ Abdou Aziz ñu ngi lay vraiment waxtaan bi am na solo waaye balaa may commencé foofu sax di nuyu suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed di nuyu soxna ma ak ñu nekk si panel bi yëpp. Mhm. waaw man li ma comprendre rek si li mu wax dafa mel ni euh, jamono bi soo xoolee taux de divorce bi kenn mënu koo wax dafa dafa jéggi dayoo parce que man li ma mën a wax rek mooy euh, xam nga sëy jaamu yàlla la mais aussi da ngay gis ni adduna bi par exemple jigéen buy dugg si sëy yaakaar rek la am mhm. yaakaar lay duggee si ku góor ki te tamit comme lu mu wax ni jigéen dafa am li nga xam ne dafa koy soxla te xam nga sëy dafa nekk lu yàgg loo xam ne soo wanee li nga xam ne yow ku góor ki parce que léegi xale góor yi mun nañ la ñëw nax ba tax ni ku nekk sa dañ toll si jamono intérêt daal hmm. kenn bëggul ne da ngay may sa doom jëkkër rek parce que dafa am diine dëgg la diine bi moo laal yëpp mais diine bi tam dafa am lu mu àndal àndal bi mooy nga mun ko yor mun ko sutural mën koo dëkkoo comme ni ñu ko waxee et cetera hmm. et cetera hmm? donc man personnellement je me dis que sëy dafa mel ni benn table bu taxaw rek bu ñeenti tànk yëpp taxawee maanaam lépp lu la war sa jabar mhm. soo koy def rek peut-être que problème du am mais du ma ne nag côté jigéen ñi rek la mais ñaari côté yëpp ku nekk da ngay mhm. xam nga donc effort bi dafay nekk si si ñaari côté yëpp mais da ngay xool ni table bu tànk benn tànk jengee rek beneen bi jeng problème dafay commencer mhm. hmm. waw parce que lu ñuy wax yëpp ñun ñëpp yàlla la ñu gëm yonent bi la ñu gëm mais dafa am benn réalité boo xam ni hmm. moo lal sëy soo gisee comme li mu wax keroog li mu wax fii nii suñu maam Cheikh Omar Foutiou Tall waajuram nga xool suñu maam Fa Wade Wele xool suñu maam euh, nu ñu koy waxatee maam Jaara hmm. jigéen ñi nuñ daan sëyee hmm. ñooñu amuloon alal mais yërmande ngi fa woon xam nga Euh, dañ lay jàpp comme seen kenn comme seen soxla jàpp la comme seen jigéen dañ lay jàpp seen soxna jàpp la seen jigéen def la seen yaay te man defe naa loolu su amee si couple rek te nëppante bañ seen nekk intérêt bañ koo lal mais yërmande rek lal ko mm-hmm. du dëgg te loolu moo manqué si suñu société ba tax ni léegi pour nga gis du caagi ni sax jigéen mënul jur euh, doom ju baax si sëy déedéet mun na am mm-hmm. mais effort mutuel bi ngeen di def yee ñaar mm-hmm. ba li ngeen bëgg ngeen mën ko cee am loolu moo jafe si jamono buñ toll nii mm-hmm. Mm-hmm. du dëgg oustaz mm-hmm. waaw uh-huh. donc man waaw man je me dis rek effort sëy moom ah jigéen ñaa ngi sëy ñu ngi def lu ñu mun ko góor ñi tam ñu ngi def lu ñu mun mais dañuy góorgóorlu rek mais mais boo xoolee ba xool au fin au fin fin du problème da ngay gis ni dangeen fa nekk rek ngir xale yi mais mbëggeel boobu sax nekkatu fa parce que sëy lu ñuy suqat la wala waaw sëy lu ñuy suqat la donc man je me dis que ñun suñu culture daf lu ñu xam mooy par exemple dañu naan jigéen ji moo war a mm-hmm. toppatoo jëkkëram mm-hmm. mais góor moo war a toppatoo jabaram pour man mm-hmm. ndax ku la jural sa doom bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi li mu am yëpp ngir yow amul lu dul yow hmm? du yéen da ngeen leen di jigéen ñi seen yi dañu sëgg donc yéen yaa war a mottali loolu mottali loolu mooy ki bàyyi ndeyam bàyyi baayam jural la sa doom di la toggal di la yekkal nekkal la kooku yow desaloo ko dara bu fekkee jigéen ju baax la laa wax de mun na fa sëy ba de Mm-hmm. mais looloo jafe léegi léegi nañu poser question bi lan moo tax léegi mm-hmm. divorce yi bëri responsable bi fan la nekk si góor ñi la wala si jigéen ñi man defe naa la question bi nekk maa ngi jéggalu ma bàyyi keneen dugg ñu mun a asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam yaay seet pap pap Kébé ana pap Kébé béyka ah, maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñëpp nag ci panel bi balal leen ma àq maa ngi nuyu suñu sëriñ bi as usual hmm. dama koy wax teg ci soxnaam si nga xam ne mu ngi ñaax suba ngoon guddee bëccëg every hmm. hour di dab bànneexi suñ sëriñ bi di ko hmm. jàppale ci liggéey bi la nii leen ñaanal yal na leen yàlla may fan ak wér ak wérle di toog bay liggéey lekk seen njëriñi doomi ba ci set setaat yi di panel bii nii ngeen toog fii nii di sant sëriñ bi di isi jàng borom xam-xam yii ma wax ji nag du bugguma dugaat dama bugg a wax rek ool yëpp benn ma eh, ma jeexal si mm-hmm. ah, pap amoon na ku ma laajoon benn buk buy laxdari mm-hmm. jox naa copie bi pap jaañ mm-hmm. waroon na ko share because nit ki soo joxee sa kàddu danga ko war a mutal eh, am benn soxna bu ma wax ne dafa bugg a laxdari bi naa ko jox eh, lifin bi what is it called the link waaye ma jox everything to Pape mm-hmm. foog naa Pape man I am just taalibe mm-hmm. duma mm-hmm. mun a joxe ndigal ci ci radio bi so ma jox ko Pape mi nga xam ne mooy président ni ITFA bi nekk uh, Washington DC jox naa ko ko waaye am coming back to sëriñ bi di ko gërëm ci waxtaan bu waxtaan bi waxtaan bi waxtaan bi neex na waaye am na yu ma la bëgg a laaj sëriñ bi nga jéggal ñu because xam nga ñun fii États-Unis dañ war a roy ci suñ maam yi ñu wax ci sëy yi li ñu wax ci sëy yi wax nga fii ne sëriñ pour nga am i taalibe da nga war a xaalis sa téléphone moo war a génn sa taalibe sa jabar moo war a dàq seen jabar yi mm-hmm. garam boobu bi ngay sol dafay war a dañ ko war a gome war a dàkkande ko mu tàlli mu gën a eh, jësneer bi gën a dàq seen bos mm-hmm. bu boobaa dinga am taale bi loolu lan la miin mu ngi mel ni léegi jamono bi pour ñu nekk taali bi dañuy seet sa am-am mm-hmm. seetatuñ sa xam-xam mm-hmm. which is sad which is very sad léegi sëy yi we are talking ñu ngi wax ci America ñu ngi wax ci Europe famille jël doomam may la ko ngeen ñëw États-Unis hmm, sëriñ bi jigéen yi ñu ngi liggéey waxuma góor yi liggéey wuñ de waaye jigéen ñaa ngi eh, daan seen doole trop di fas jom because jigéen dafa bañ ku ko yeb ci néegi sëyam mm-hmm. jigéen yaa ngi am njoboot fii sëriñ bi jigéen yaa hmm. ngi dang dang ci sëy ci ci njoboot gi jigéen yaa ngi tal eh, sax ñooy enu moo saf ci jigéen yi ñooy enu seen doom yi yóbbu leen ci daara bi sant yàlla ba bari li sëriñ bi ñu ñaanal ko lim sëmb ni sëmb xaw ma noonu lañ koy oye hmm. yal na ko ci yàlla jàppale foog na yàlla jàppale na ko ci ba pare hmm. yaa ngi dégg pour fi ñu xam ne dinañ mën a yóbbu xale yi dara waaye jigéen yaa ngi góorgóorlu trop sëriñ bi jigéen a ngi sëy mu ngi ci doomam yi jigéen a ngi sëy mu ngi ci liggéey yi 24/7 nga ñëw nga sonna nga ñëw nga defar ndekki eh, añ reer aw nga togg pour lifin jëkkër soxla la foofu noonu xanaa jëkkër ji du am xolu yërmande jëkkër soxla la nga ne soo ko waxee ne tàyyi naa loolu amuloo sëy kon góor yi ñoo war a am xolu yërmande Mm-hmm. ñu xam time boo xam ne dañuy def time table fekk du kenn du sonal kenn mm-hmm. ne waxtu bi because yaa ngay daw guddee bëccëg subaa ngoon metti na ma laaj ñun africain yi ñoo xalaat loolu damay jël benn président rek ki nga xam ne ci États-Unis bii la nekk mooy Obama papa mooy papa mooy woon jullit yaayam di jullit mm-hmm. waaye Obama dinañ ne tekki naam tekkiwut président hmm. bi ñëpp bëgg ci États-Unis lu waral loolu hmm. kon ñun nag ñu ne jigéen su ko hmm. jëkkëram laajte nanguwut su ci doom tekkee wala ngeen xuloo su ci doom ame naka sudut noonu lay doon man foofu confuse naa foofu trop trop trop jigéen ñi am na ba tey ñuy juddu joom yu baax jamono ji nag moo laaj suñu waaw ma taxaw because dafa bari li ma bëgg a laaj yëpp dafa bari dégg nga am na ñenn ñoo xam ne dañ noppi rek ñu ngi toog with they have questions mm-hmm. in am nañ questions what what you call it so many questions to ask mm-hmm. waaye jom ñu ngi toog ne bëgguñoo fis mm-hmm. waaye question ci bëri nañ sëriñ bi Ah. waaye bu jigéen ñi ñëpp génnoon ñu jox la benn benn question dina doy waar sëñ bi bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam ma bàyyi foofu foofu baal leen ma baal leen ma garaaw baal leen ma amul solo amul solo ah, bismillah ah. ki njëkk laaj dafa wax ni euh, toowu divorce yi mhm. maanaam ni divorce yi bare xam nga ci biir waxtaan wi maa ngi koy wax mus nañ ma ko laaj ci benn conférence su ma juumul pikin la woon mhm. dara indiwu ko lu dul yaakaar ju tas mhm. amoo lu loolu mooy yaakaar ju tas bi mhm. mooy base bi départ bi moom moo tas sëy ba parce que ku góor gi mooy beauté mm-hmm. maanaam sama départ man Abdou bi may takk soxna si mooy mm-hmm. taar bi moo ma moo tax ma takk ko maanaam beauté bi ma gis nii muy feeñ mm-hmm. mooy taaru boobu ma gis lijjantiwuma am na diine lijjantiwuma euh, euh, am na ngor yooyu yëpp lijjantiwuma ko li ma lijjanti mooy ale la jigéen la takk naa ko pour samay morom buñ ñëwee dañ waaye sànniwul xaalisam sawaay tebbi na comme ni ko sëriñ bi waxee sànq léeg-léeg sax dëgër fit ñëw ci yow naa la saay àll say bët. Mhm. foo lu boobu ñu mhm. moo ñu indi góor ñi. Mhm. ñu baax ma ci ñi ma ko sañ wax. jàngale moo di demee da ngay da ngay da ngay. ma bàyyi sax yàlla yàlla daan wax naan ma garabu jàngale dafa gësam rek. soo gës bu ñor dina tàbbi bu nëb dina tàbbi bu xaay dina tàbbi bu waaye la yàlla waxoon ci alquran alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana kenn ku ne dañ soxla léegi su fekkee ñu ku góor ki loolu lay wër mhm. jigéen ji moom it intérêt rek moo ko dugal ci sëy bi maanaam sëy bi yàlla da koo lalul te yàlla lum lalul mu yàqu day yomb mhm. moom ndaw si intérêt moo ko dugal ci biir sëy bi mhm. man ko intérêt parce que ab taarama ci dugal te ñaar a ngi nii su fekkee dama ko takk ngir taar gis ne jigéen lu mu rafet rafet su ngeen fanaanee ñaari weer dootoo gis taaram ñaari weer bu ngeen ko dëkkee dootoo gis ab taaram keneen ay gis taaram mais dootoo ko gis ndaw seet bu fekkee am na interet bu mu doon dàq te lam yaakaaroon fekku ko fa mhm. parce que léeg-léeg mu nax nit parce que léeg-léeg nga gis nit yakar ni lépp impec fekk kaw gi rek moo impec mais boo duggee ba ci biir di nga xam ni sawaay da koy mbëkkante di ko jaayante rek mhm. affaire yi taxu koo demee noonu boobu tas mooy stabilité bi ngay yaakaaroon foofu nekkatu fa nekku fa moom it taara ko ci dugaloon kon yàlla amu ci yoon maanaam li ma bëgg a wax mooy sëy bi yàlla da koo lalul bu mhm. fekkee yàlla lalul lu ko tas day yomb mhm. mooy mhm. soo amee lu la naqari rek sa xel day dem ci sa yaakaar ji tas man it su ma amee lu la naqari rek sama xel day dem ci sama yaakaar ji tas léegi ñun ñaar lu ñu jotalee day yomb suñu werantee itam lée ñu delluwaat ci diine mais duñ dellu ci diine kenn ku nekk day dellu ci famem te mhm. yàlla daf ñu waxoon ni sëy bi su amee problème ña ko takk si woon na ngeen ñu ca rafet ñu ca rafet xel ña ñaan si woon ngeen seet ñu ca rafet xel ña maye ngeen seet ñu ca rafet xel ñoo ña daje ñu waxtaane ko mhm. duñ def loolu mooy man ndaw si su meree yaayam lay wo yaayam merle ko ku góor ki bu meree yaayam lay woo yaayam merle ko parce que suñu sëy yi dafa métti man mhm. damay wax fii Sénégal yi sëy sëy suñuy sëy dafa métti parce que entreprise lay doon sëy boo xamee entreprise lay doon kenn ku ne am ca bureau mais regle ko du yomb parce que yaay da ciy am bureau papa am ci biro mag yaay am ci bureau rakki yaay am ci biro sa mag yow bu jigéen am ci bureau sa rakk bu jigéen am ci bureau kenn ku nekk am ci biro mais ab sëy bu fekkente ni ku ne maanaam ab entreprise la kenn ku ne di ci xëy ci ñaari nit ñu mën a sëy mais bu yàgg lool du neex a léegi su ko defee nag la yàlla waxoon ñu teggi ko mooy nañ wut ñi ñi sell xel ci ñi ñaan si ak ñi sell xel ci ñi maye woon ñu daje waxtaane ko mhm. yàlla tegaat ci ni loo gis procédure la yàlla tegaat ca ni suñu ko waxtaanee ñoom boroom xel yu sell yi ba sonn te mënul régler yàlla ni nañu teqalikoo waaye teqalikoo ba na rafet mhm. nañu teqalikoo waaye teqalikoo ba na rafet loolu la alquran nañu ko waxtaane su mënul sotte bu ñuy teqalikoot na teqalikoo ba rafet mhm. léegi nag cause bi cause bi cause u problème bi mooy dañu dellootul ci maanaam dañu takkul sëy yi ci diine maanaam mhm. dañu ko te yàlla tax maanaam sëyuñu te yàlla tax mhm. bu dee góor takkul te yàlla tax jigéen dugg ci te yàlla tax preuve en est que seetlul bu baax li ma la wax mhm. bépp jigéen wax dañ may maye boo ne ko waaye yow kiñ lay may moom kañ ngeen xamante woon naa mu naan ah xam nga rek yàllaa ñu boole nii rek xam nga je l'aime après jeex na moom it il même xam nga bon ñu dund suñu amour noon sax lañ koy waxee ñu dund suñu amour. Mm-hmm. yàlla wul ci diggante boobu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu. même sëy bi bi nga xam ne dama bëgg ngir yàlla yow nga bëgg ngir yàlla ñu mayee ñu te yàlla tax sëy boobu sax yonent bi sallam daf ñu jàngal nan lañ ko war a gérer. suñ mm-hmm. ma mayee ba pare naa delloo njukkal sunu boroom. Mm-hmm. naa sant yàlla na julli ci yonent bi yow ndaw si nga def ko sun nu mhm. boole bind néeg man ak yow bala mhm. ñoo jéem dara nañu santaat yàlla mhm. delloo njukkal sayyiduna muhammad ak ñaan gi ñu war a def bala ñoo ànd bu ñuy ànd ñaan gi góor war a def ñaan ki jigéen war a def suñu àndee góor di yëg boppam ñaan gam war a def yooyu yëpp bu ko yont salaa sallam di jàngale mais pour protéger la mais ñun nag malheureusement nañ ñëw bàyyi fi njàngale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël mhm. suñu yëf te mooy li ma la wax ni la yonent yàlla koppar moo existé sama yaay ji laaj wax na ni euh, maanaam dëgg la li li li li lii ñuy wax ñun africains yi yëpp mais tamit jigéen boo koy may góor na ko mën a yor mhm. boo ci njëlbeenu waxtaan wi dama la wax charte yi ñuy takkee mhm. wan nakki su sax mooy wéral ab sëy loolu wax naa la ko jël njëlbeenu waxtaan la Mhm. mooy na nekk góor mhm. na am nafaqa mooy dépense na mhm. am kusu na am sukkuna na am sadaq mooy can gu yooyu dajee sëy bi mën naa am xam nga loolu ca départ bala loolu waxoon naa la ko maanaam te yi ma lay wax yëpp du sama wax du waxu ustaas mi du waxu Basamba du waxu Mademba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo ñu ko jàngal noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee loolu laa la xolal Mm-hmm. mooy jàngale yonent léegi nag ñun ñoo toll ci moment boo xamante ni lépp loo xamante ni njàngale la moo xam alquran la wala hadis la ñun léegi dañ koy composé ak sunu xel mm-hmm. mooy dan pourquoi yàlla wax pour pourquoi yonent wax li salaay salaam non et pourtant ñun nàngam et pourtant ñun nàngam déedéet mm-hmm. alquran duñu ko discuter hadis duñu ko discuter parce que yàlla moonu wax ni kii lu mu wax maak ko wax loo laa yonent ko in wax te xat te te moo ñu waxaat ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana uswatun xasana ok kon loolu loolu loolu day féete boor mais ci tontu bu gàtt daal ma wax la ni cause bi mhm. mooy yàlla lalul sëy bi mhm. loolu mooy cause bi mhm. solution mooy nanu delluwaat ci alquran oustaz wax na ko sax lu am solo la damay toujours ni li yàqu yàqu na ba pare nañ defar li yàqoogul saaku pombiteer boo ca fekkee benn pombiteer bu nëb da koy booleeg yéen a gas yéen a bëggul nga fexe ba ñu bañ a nëb yàqu moom yàqu na ba pare léegi nañ defar li yàqoogul nan la ñuy defaree li yàqoogul mooy yow mi am doom te xamagul dara fexeel diine jiitu ci dënnam hmm. yow mi am doom te xamagul dara fexeel diine jiitu ci dëngam ci dënnam fexeel di naxanteeg moom mu xam ki mu war a topp ak ku mu warta topp mu xam li mu war a roy ak lu mu warta roy mu xam fi mu war a teg tànkam ak fu ko war a teg te loolu dara mm-hmm. mënu koo def ci moom lu dul diine jiitu ci xolam mm-hmm. jiitoo ci xolam gis nga nit bu ngëm yàlla bu imaan jiitoo ci xolam leneen lu ñëw day takk mm-hmm. xas muy wadd dara du ko sonal léeg-léeg gis góor bëgg jigéen jigéen ja bàyyi ko mu xaru léeg-léeg jigéen topp góor mënu cee jot mu xaru léeg-léeg hmm. jigéen ñett xaalis xaru góor bu rate benn projet xaru parce que amul iman mais yow mi am iman soo ñàkkee projet bi mbaa nga ñàkk xaalis bi da nga naan yàlla moo ma ko xañ hmm. léegi da koy delloo ci suñu borom te du te du tee buñ noo dee tisbaar nga julli de hmm. du tee bu jotee bu tibis te yow xam nga ni moo ko xañ li la koy wan mooy sa papa bi la jur ak ni nga ko bëggee yàlla xëy jël xam ray ko mhm. yow nga papa teg ko ci buntu néeg yàlla muy jàkkañ ko yàlla xam naa ne yaa ko rey maay baal ko mhm. loolu la ilimaan di wax de yàlla mhm. yaa ko rey maay baal kii sa jaam la di ko di toroxlu pour mu baal ko te moom moo ko rey nga ci buntu néegam buntu néegu ki ko rey ba pare di toroxlul ki ko rey pour mu baal ko <laughs> loolu mooy imaan léegi nag imaan googu su jiitoo ci xale bii li sëñ Babacar Si radiyallahu anhu daan wax naan sa njaboot soo paree ci moom fu la neex yabalal léegi su imaan gi jiitoo ci moom am na base ngëm googu mooy tax lépp lu muy duggati da ciy jiital sunu borom bu su fekkee nag tàggat nga ko ba mu jàng ko faf ba xam tey jii ki jàng ki imaan ne ci moom mu jàng xam ni sëy bi bu may dugg ci sëy dama cee war a dugg te yàlla tax mm-hmm. takk soxna dama ko war a takk te yàlla tax ki xam lu xam loolu mën na bañ a rate léegi nag su ko defee ñaar ñooñu bu ñu dajee ñoom la ñuy am moom loolu lu ñuy jariñ lay doon mm-hmm. yaakaar naa loolu mooy laaj bu njëkk bi mm-hmm. beneen laaj bi mooy euh, li suñu yaay jooju génn wax te mooy euh, benn côté dama yaakaar ni dégg-dégg bi moo xaw a des mm-hmm. dama wax ni jamono bii ñu toll ñun xaalis la lañu favoriser ñun ñun ñun suñu seen jàpp dañoo topp yonent yàlla koppar ba tax na fu xaalis nekkul duñ daw wuti fa. Mhm. ba ci sëriñ léegi pour pour ñu dem ci sëriñ bi foofu sëriñ bi tane ñu ci xaalis foofu la loolu laa wax. sëriñ Cheikh Tidiane Sall dafa ci mujjug dundam. ni mhm. sëriñ Abdoul Aziz ni ko jamono bii ñu toll. sëriñ si ñoo war dimbali ji taalibe yi ci xaalis. Mhm. ni ko sëriñ si ñoo war a dem di dimbali ji taalibe yi. parce que booba xam na ni fii jamono toll gars yi yàlla koppar la ñuy jaamu. mana moo gëm tey ji am na koo xamante ni boo tegoon ay milliards ni ko lii ay milliards la jox ko benn secret ni ko lii boo ko jàngee di nga gis yonent bi day jël milliards yi émission la foofu la toll foofu la toll mais tey ji mag mi daan jël alal ji mu am mag ñi dañ daan jël seen alal seen wurus dem jaay ko booleeg seeni nag jaay ko dem jox ko hëddiyam nitu yàlla ngir lan mu teg leen ci yoon wi ñu mën a jàkkaarloog sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon xam na euh, génération yi bokkul loo foofu loolu laa wax léegi nag li wax ni ci affaire Barack Obama li exemple boobu pour leeral rek waxoon naa ko ci biir waxtaan doomu jullit bi ñu may doomu julit ñuy sëy hmm. ma la sëy bi yàlla lal liñ ci séntu mooy doom xam nga doom ju baax nee naa la du doom ju am alal mhm. am alal taxut a baax ñun nag fii diw tekki na mooy am yor na xaalis ñun loolu mooy tekki ci ku tekki mooy ki yor mhm. mais bu yoorul rek ndax kenn du la tuddee ku tekki dañ naan sax tekki woo dara buñ lay loolu sax lañ la diw mi nga xam ne tekkiwul dara nga topp ko loolu la ñuy wax nattukaay bi li natte moo baaxul voilà natt suñu mm-hmm. nattukaay bi moo baaxul mm-hmm. or que tekki ak alal jotewunu dara mm-hmm. jotewunu dara alal wërsëg la rek yàlla moo koy jox ko neex li la koy yow yow yow maanaam oto bi nga war yow ba tax ngay tiitaru dul jàpp du julli bu sawee du wisu xamul yàlla dégluwul yonent bi war na bu ko daak da kër gi nga dëkk su fekkee moo tax ku gëmul yàlla gëmul yonent bi ëkk na ci château bu ko gën a rafet kon affaire bi nekkul xam nga fa lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy valeur bi dama jox bañ dama ko bañ sax ba joxe exemple ci Cheikh Omarul Fouti mm-hmm. maanaam dama bañ ba joxe ci exemple li tax ma joxe exemple mooy dama la bëgg a wax ni loolu mooy doom ju baax mm-hmm. mooy doom joo xamante ni bu nee allahuma yàlla ko acce mm-hmm. doom moom xëy ba bi ah. ci moom xëy gi moom mooy bu ngeen jàkkaarloo yéen ñaar bu àddoo la mu àddu moom la ñuy def mm-hmm. moom ñoo xam ne bu dee këtt ni jonn yow allahumaam ngay yaakaar ñaata mm-hmm. milliardaire ñooy dem sukk ci kanamu ku yorul dara di ko ñaan lo mm-hmm. da ngay yor ay milliards am problème tiit ñëw dem seeti koo xamante ni ci benn puqusam nga koy fekk mu dëkk ci benn euh, R du sax ci R plus rek lay dëkk nga ko mbaa mu dëkk ci bara dong ko mën a faj hmm. sa aajo ji moom dong ko mën a foofu laay waxe doom ju am xaalis ak doom ju tekki duñu benn doom ju doom ju barkeel duñu benn hmm. sëy bi nag doom ji bénéfice la ci hmm. mais nekkul objectif bi objectif mooy ni ñuy noddee nga dugg ci jàkka ji julli loolu mooy objectif bi sëy bi da dem pour jaamu yàlla looloy objectif bi Mhm. bu ca doom amee loolu bénéfice la léegi jaamu yàlla gi nag moom ngay sellal soo ko sellalee bu ca doom amee bénéfice bi day nekk bénéfice bu baax mhm. parce que bénéfice bu bon am na objectif mhm. objectif bi mooy dem jaamu ji yàlla sëy bi na nekk jaamu yàlla loolu tamit sunu yaay yeeg sunu tante yi am nañ ci part de responsabilité parce que léeg nga gis jigéen ñu maye ko mu war a sëyi mbokkam yi ko wër duñu ko yab mukk ni ko da ngay jaamu ji yàlla mm-hmm. duñ ko ko wax mm-hmm. bu dee ab ñaareel la sax la rawati moom mm-hmm. moom dañ naan ko ka nga fay fekk waaw gaynde gu déggul jat la waaye boo demee xaw ma samaam musta daw xare say maam yëpp ci toolu xare la nu dee boo demee bu ko kenn yóbbul na def ba mu baax tante ja jaar fee jëndal koy sër kañ ko ndayaleel jaar fee jëndal ko ànd kële jaar fee yanuy fer ke jëndi cuuraay kële dem jënd pañe dox daje dikk jox ko kenn kee yónnee koy takkaay kële jëndal ko lee naan ko boo demee bu la sa jëkkër bu mu namm dara bulo ko bu la ko kenn yóbbul na nga defar ba mu baax bu la bu la dara rëcc mm-hmm. léegi xale li mu def ci boppam mooy lii ñu ko wër yëp kon bànneex rek la war a fekkee mm-hmm. léegi su demee bànneex si du bànneex rek mm-hmm. bànneex rek lañ ko yabee moo tax bis bu naqar amee mu tas sëy bi naqar amee rek mu ni je peux plus je demande divorce ca pare na parce que yéen a ko yab ci bànneex mais xale bi sëy nga jël sajaada satala ak kurusa ko kol jox ko ni ko daa la yabee lii pour lan la mu ni julli lii pour lan la mu ni jàpp lii pour lan la mu ni ñaan mu nga ni ko soo demee na nga jàpp ni ci jàkk ngay dugg pour julli dangaa dem pour jaamu ji sunu borom dangay jaamu ji yàlla xam nga ki ngay fekki sa sang boo yeggee da nga ji yàlla soo jàppee ni da ngay jaamu yàlla li ngay def defoo ko ci sa compte jëkkër ci sa compte yow nga koy def loolu il bàyyi ko xel nit ndaw si li muy liggéey du pour jëkkëram pour boppam la moom ci compte versé versé wul ci compte jëkkëram borom këram it su defee li ko war ci compte lay versé versé wul ci compte ndaw si moom la sunu yaay bi wax sànq mu ni coono bi ñuy daj ba pare ñëwaat ci kër gi bu la sa jëkkër soxla nga bañ nga ni ko dama sonn loolu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yonent sa boroom kër bu la soxlaa xoola ma wax la beneen bala maa eggale loolu yéen sallallahu alayhi wa sa soxna yow soxna si soo bëggee woor te du farata da ngaa war a sa jëkkër maanaam yow da ngaa bëgg a woor comme sa li ñuy wax ay soobaan ak ay arafaak euh, kooruk naa fi la goo bëgg a woor ñaari fan wala ajjuma ak yooyu da ngaa war a ña sa jëkkër bam ni la wooral léegi soo tàgguwul sa boroom kër bam ni la wooral nga woor sallallahu alayhi wa sallam nee googa sa boroom kër bu ko neexee da koy dagg te su la ko daggloo nga bañ Moustapha nee na doo ca am yiw rëbbum yàlla nga ce am maanaam bu wax la doole ji boroom kër am ci soxnaam mhm. mais boroom kër googu bi ko yàlla di dénk soxna seet waxoon na ko ca njëlbeen ni ko wax naa la ko sànq arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa loolu yàlla waxu gëneel dafa wax ni yow góor yaa ëpp doole jigéen yow góor yaa war a coiffer jigéen maanaam yaa ko war a téye ko war a soutenir yaa ko war a tenir yaa ko war a gérer yaa ko war a téye maanaam téye lañ la wax yaa ko war a téye yow góor ndax yaa ko ëpp yaa ko war a yiir tey boo demee bu dee ci kutubu fiq yi dañ lay jàngal ni la jigéen waru nduggi marché dañ la naan gi sax waru ko def bo am bu amee doom sa doom jooju yow baay bi da nga koo war a fay mu nàmpal ko boo demee dañ la koy yox dañ la naan ndaw si yaa ko war a toggal wala nga wut ku koy toggal nga koy fay mm-hmm. sa soxna yaa ko war a euh, nu mu tuddati euh, maanaam sa doom bu bu amee doom doom jooju bu ko neexee moom soxna si mu ni la weer wu dee da may fay temps ma nampal xale bi mm-hmm. nga di ko ko fay mu di ko nàmpal benn bàkkaar doo ko ci am mm-hmm. yow ndaw si mais loolu lépp bi mu bi gàlloo ci kaw góor booba dafa fekk jigéen toog ci biir kër gi maanaam bi mu gàlloo ci kaw góor booba dafa fekk jigéen toog ci biir kër gi mais léegi nag jigéen bàyyee àndam boobu ci waxin maanaam yàlla waxoon ni nañu fa yam ba ñu ko bàyyee déborder léegi nag les données son changées problème am problème day am parce que données yi day daal di changer mm-hmm. léegi nag lañu maanaam tey jii lañu lañuy ñu góor parce que yow mi maanaam yow mi mu ko war a yanul fam la koy fam lay fekk pour jox la ko ne woof donte ba léegi mi ngi am parce que góor a ngi fay bu dee fii mi ngi fay jànq bu nekk ci kër yow soxna si nga xëy liggéey sa jànq bu weer dee sa sa kër fay ko donte am na soxna yoo xam ne ñooy fayal seen jànq seen bopp loolu beneen domaine la parce que damay wax dama wax ni lii moo war góor lii moo war jigéen amaana góor gi ko dul def digganteem ak boroomam la jigéen ji ko dul def digganteem ak boroomam la mooy li may wax toujours nit du yóbbu nit safara nit du yóbbu nit aljana aljana programme yàlla la safara programme yàlla la waaye yàlla lim la sant mu dagan ngay wax li xaraam ngay wax léegi nag ki ak kii def lu dagan na xam ni man lu dagan laay def kii def lu xaraam xam ni lu xaraam laay def ëllëg yow mal xiyaam fa leen yàlla di dugal yoonu nit ñëwu ci. Mm-hmm. walaay ndeysaan walaay ndeysaan. Mm-hmm. oustaz dafa mel ni ah, soxna Seynabou ah, ak soxna Fatsi ñoom ñaar xaw nañu yàgg tuuti ci liñ nga baal ma rek eh, nga baal ah, ñu may leen rek ñu daal di dugg am lu ñu laajte bëgg mm-hmm. eh, li ñu dese ci waxtu bi eh, bëriwul torop. soxna Seynabou bismillah. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. waaw um, maa ngi nuyu ñëpp nekk ci panel bi. su nekk sa sant. mais dama amoon benn question bu ma laaj oustaz. am nga jullit bu nekk dafa am lu la tënk. mooy da nga nekk jullit am lu la war ak sa diggante ak sa borom. mu boole lax nit nit boobu bu dee yow jigéen bi da am jëkkër jëkkër bi moo war a dem yow jigéen bi nga toog si kër gi pour yar xale yi ma doon laajte benn affaire bu fekkoon ne jullit yëpp ñi am jabar ñi am jëkkër yëpp ñu ngi doon doxee noonu ah ci àdduna ndax euh, natt dina am parce que di nga gis jigéen boo xam ne yàlla daka nattoo ku góor ku bon wala nga gis góor boo xam ne daka yàlla daka nattoo jigéen bu bon xam nga loolu mooy def parce que nan lañ koy waxee sax yow li ngay muñ boobu ngay muñal sa jëkkër wala ngay muñal sa jabar suba mooy tax say doom mën a arrivé xaw ma ndax sëñ bi mu ngi comprendre li ma bëgg su may su may waxee parce que aduna euh, nattu bi la yàlla di teg mooy dalay teg ay épreuve xam na ne li mu lay teg mën nga ko mais da la koy teg pour nga gën koo jege mais ma doon laajte tey sëy di tas bëri na parce que yu si bari du diine ko lal du bëggee ko lal intere ko lal mais dama doon laajte ndax adduna bu fekkoon ne ni ko yàlla bëggee mu ngi ko doon doxee ndax kon natt dina am ndax yàlla dina la jox góor gu bon pour nga mën koo dimbali dem nga nga jàppale ko am si ay doom yoo xam ne suba mun nañ leen dégg comme genre sëñ Touba yeeg Alaaji Maalik ak yëpp loolu laa bëggoon xam oustaz loolu la ma ci wax daal asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw kay daa mel des na keneen mhm. soxna Fatou Si soxna Fatou Si bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam maa ngi leen kenn ku nekk ci turam ak santam ginnaaw bi ñu sant yàlla julliwaat ci sango àddina ak àllaaxira sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu sëñ Firi Ahmed bu baax a baax ak soxnaam soxna ma jigéen um, oustaz uh, Pape Kébé Abdourahmane Fall ak uh, oustaz Abdou Aziz Doucouré maa ngi leen de nuyu macha allah di rafetlu teewaay du bu baax a baax maa ngi jéggalu nag vraiment ci dérangement bi mais li ma bëgg a wax tuuti sànq soxna Xadi maa ngi koy bu baax a baax wax na ko di laajte taux divorce tey bi fu mu toll rawatina ñun ñu nekk bitim réew yaakaar naa li ma ci bëggoon sànni tuuti même bu ma dalulee man dalul ñu nekk ci panel bi yërmande bi war a daw diggante góor ñu nekk bitim réew ak seeni soxna Mm. tegante bët bi mu ngi mel ni tulleeg Mali sa jabar mm. soit fii nga ko takk wala danga ko jëlee Sénégal indi ko bitim réew mm. ndaw si day commencé liggéey tuuti tegante bët bi commencé parfois nag day doon vice versa day ñëw ci ñaari côté yëpp vraiment loolu chaque jour chaque jour da ngay euh, chaque jour da ngay dégg ay cas yu mel noonu oustaz vraiment foofu bu ñu sañoon ñun jigéen ñi wa wax dëgg fa yàlla tamit góor ñi nekk bitim réew ak seeni soxna war nañoo xam tamit lan mooy seeni wareef ak mm. lislaam lu mu wax jigéen buy liggéey bu yeboo nga am ay milliards lan moo nekk waree wareefu góor gi ci biir këram mais mm. foo dem bu ñu tourné ci bul bi fu ñu dem dikkaat wiiri wiiri ba toujours da ngay dégg moo tegante bët bi jigéen bi mm-hmm. commencé na liggéey tuuti di amal boppam di mm-hmm. commencé réaliser dara jëndal boppam ay takkaay chaque jour problème yi day jóg chaque jour problème yi day ñëw donc mm-hmm. vraiment foofu bëggoon naa wax dëgg fa yàlla nga leeral ñu tuuti rek ñu xam jërë ngeen jëf waaw ñu dem waaw bismillah mun ngeen dem ok ku njëkk ki dani nattu nattu maanaam bu fekkoonte ni est que nattu dina am buñ mënee dëgg question ci loolu la dellu waa nga nattu sunu boroom moo koy tege mhm. mais bàyyil xel ni li ñu lay wax nii jàngale la mu sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñu la lii la jàngale ama mhm. jëm yàlla teg nattu moom mooy nangu nattu bi mhm. moom mooy nangu nattu bi mais mu bàyyi xel tamit ni yàlla bu la joxee góor gu bon mhm. yàlla bu la nattoo góor gu bon mënoo cee jur doom ju baax nga cee ju am xaalis nag mais sang sang mënoo ko cee jur looloo tax bu ngeen dégloo sama waxtaan ca njëlbeen ba ma ni la yonent bi dafa tànnuloo jigéen jëkkër tànnuloo góor soxna mhm. maanaam gis nga ni góor di tànnee soxna yow jigéen ki noonu nga war a tànnee boroom kër mhm. maanaam ki nga war a jural ki nga war a fondeel benn société boo xam ni ay njaboota ci war a sosoo kooku danga ko war a tànn mooy li mhm. olof la tànn sa bàyyi doom mais du caage xojog gu jug rek nga ne ko yow laa bëgg nga nekk sama baay do mm-hmm. xewal rek mm-hmm. maanaam ko message anteel ñaari message ñett ngeen waxante baa du neex rek aca yónnee nga ko message ni ko euh, xaw ma nu koy waxee ci tubaab je veux que tu être le père de mes enfants xaw ma nangam ak nangam ah moom it mu lay jaay làmmiñ wu naan naan la tu devrais être la mère de mes enfants xaw ma nuñ koy waxee noonu kenn ku nekk di waxu dul maanaam dama la wax ni la soxna danga koy mhm. ndax dafa bëgg boroom kër yow jigéen amal fayda ju toll ni danga koy tànn mhm. ndax dafa am loo ci bëgg gis mhm. nga ni charia góor mu xëy taxaw ni sama soxna si sama digganteeg moom fii laa koy yamale ñu laaj ko lan moo tax mu ni parce que amul diine amul diine noonu la jigéen amee droit xëy ni sama borom kër gi mënatuma nekk ak moom ndax la amul diine yàlla tax de bis bu amul diine yàlla nit ñi nga mën a nax mais yàlla mënoo koo nax rek tax mais loolu dañ leen di dañ maanaam dañ koy corriger ci bu gaaw bu gaaw charia da lay corriger mais dama laa wax ni la nattu boobu la yàlla teg nag sànq ci sama njëlbeenu maa ngi lay wax ni la génn góor mës na ma wax jigéen bu bu bu ko boroom këram ragalee amul sens parce que day répét day day day wàcc ci ay njabootam. Mhm. léegi nag kër yàlla booleel xaw ma ndax bon gi jikko la wala wala poos la parce que dafa am bonu poos am bonu jikko mhm. bonu poos bu diisul bonu jikko nag moom ay jikkoy boppam la su fekkee bonu poos la mhm. nga poos boobu moom poosam dafa bon yow sa poos baax mais jikkoom baax na mais la ngay def ci moom ci sa poos yow lay jariñ mhm. moom lay jariñ de nee naa la lu ci waay def sa sa la jëm xanaa xamoo ni boroom kër gi xëy di joxe dépense am boobu muy joxe jaamu yàlla la mhm. mu yaakaar ni da leen di dundal nii de dafay jaamu yàlla parce que dépense bi mu joxe day day dem ci compte yiwam ñëpp jàng ngeen rasulullah sallallahu wax ni am na bàkkaar boo julli du ko far azaka du ko far aj màkka du ko far euh, koor du ko far lenn rek mooy dindi bàkkaar boobu mooy nga liggéey lu lew joxe ci dépense sa soxna su la lew mu togg ci añ bu lew ñu lekk ko mm-hmm. bàkkaar ba door a far kon jaamu yàlla dama laa bëgg wax ni la yéen ñaar kenn ku ci ne lu mu def ci kontam la ko def mais sayyidatuna Khadija dafa bari woon alal muna muhammad sallallahu alayhi wa sallam poosam booba baaxul waaye jikkoom baax na ndax booba mu Xadija ko embauché woon mu koy liggéeye te Xadija bi embauché sallallahu alayhi wa daf ko embauché ko bëgg léegi nag jikkoom mu bëgg a testé jikkoom mu embauché ko bëgg xam comportement am embauché ko boole ko benn jàmm bu ñuy wax Maysura ñu ànd dem defi commerce bi ñu ñëwee ci gàttal Maysura nettali ko lim gis dafa woo xaritam bu ñuy wax Nafisa ni ko doom lay jeg Aminatu laa bëgg Nafisa ni ko yaa ko mag mu ni ko loolu compté mais dama ko bëgg ndax jikko yi ma doon soxla ci góor moo ne ci moom hmm. jikko yi ma soxla ci góor moo ne ci ñoom moom mais ñun en général foo déggee ci sunu génération jigéen ni dama bëgg góor ba di ca boppam ñaar rek lay wax dafa coofe wala lim yor hmm. ñaar yooyu rek la la jigéen hmm. yii xale comme ku sangoo kereen mais kii dafa boo dafa jantal mu dem wala yii poos ba mhm. voilà yii xanaa xamul kii doomu millionnaire la doomu milliardaire la mhm. kii li mu yor kii yëpp bàyyee ma ko moom gis nga moom ma ngay calculer ndono mhm. te xamul kuy njëkk a dee intérêt yooyu laa lay wax moo tax ma yàlla lalul nattu lay mujj doon ci yéen ñaar ñëpp Xadija jikko yooyu moo ko neex ci rasulillahi bi ñu laajee Xadija sayyidatuna naa sëy naag ñaari góor tàqalikoog ñoom moo tax jigéen sëy taxu ko bot Xadija sëy naag ñaari góor tàqalikoo ak ñooñu door a dajeeg rasulillahi sallallahu alayhi mag sayyiduna Muhammad ci ay at suuf waaye ànd ak moom xoolal doomi doomi doom yi nga dégg ñu leen di tudd ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp Xadija leen jur te Xadiija li mu nekkee woon kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Moustapha borom jom la mais wërsëg boo bari wul sayyidatuna Xadiija bëri wërsëg dikk ànd ak moom Xadiija li mu doon dundee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bu soxla si taxawee Xadiija génne faj ko bu ñu dee yónnent mu dem doxi yónnent ba alors loolu mënuñu ko am fi tey jigéen boo fi àndal mu ëpp la mu ëpp la wërsëg ngeen di sëy boo deful dànk yenn course yi yaa koy dox boo deful ndànk yenn course yi yow yaa koy doxi li li li li li eh, alaaj Baxtaar Seck Mboro daan wax ni ku mottali sa dépense mottali sa kàddu mm-hmm. mais jigéen su fekkente ni loolu mooy laaj bu ma ci laaj bu mujj jigéen su fekk loolu waxoon naa ko sax ci sama njëlbeenu kàddu newoon naa la bu dee multimilliardaire yow góor ngay am saleeru deux cent mille francs par mois dundam koddaayam hmm. yow la war dëkkal ko la ko yow la war dafa am loo xam wareefu góor la am loo xam wareefu jigéen la maanaam hmm. jigéen multimilliardaire laa wax de même bu hmm. fekkee dalaa wàcce loolu mais yow la war même boo ko deful yow la war léegi nag nit li ko war te defu ko ak ki mu war mu di ko def ñaar moo fi ne kii da koo war mu def ko kii mu war ko defu soo ko defee soo ko deful yow la war mhm. maanaam wareef la waajib la ci yow dafa war ci nga nga dundal sa jabar dafa war ci yow nga sa jabar dafa war ci yow nga dëkkal sa jabar dafa war ci yow nga dëkkoo sa jabar na nekk ki ëpp alal ci àdduna bi yow nga nekk ki gën a pauvre ci àdduna bi teewul yi yow la war xam nga lu la koy wan keroog ba ñuy takk ca bañ la koy may même bu fekkee ndaw see la jox li nga ko takkee bi nga egsee ci jàkka ji yow la ña yoon yónni la ñuy laaj can gi yéen ñuy ñaan si ana ngeen ñu ne ñoo ngi nii ñu ne indi can gi mm-hmm. mooy lii diggante bi mooy nga joxee can gi loolu mooy léppi ndaw si yow la war mm-hmm. léegi su la ëppalee ba koy def mm-hmm. yàqa yewit li la war mooy sant yàlla li ci des mooy yërmande gi war sa diggante ak moom nga def ko mooy li wax sànq sama nee la ñun dangay gis ku ci topp jigéen di naxtaan di naxtaan ba takk ko mhm. ba ko takkee une semaine la sëy bay am ba weer daanaka yéen ñaar dootu leen wax wax mhm. ñu baal ma nag bu dee ñun dafa xaw am folie de grandeur mhm. moom baat bëgg fu sori kàddu gi sama kàddu la sa kàddu la yaay kilifa gi kenn xëccoo waaye yow it tax nga yan nit ñi luñ àttan ne ci kër gi di xiiw di bëmm rek kenn du wax bu soxna si eh ma sa moroom du ma wax ngay wax yàlla moo ñu wax ci alquran yàlla moo wax ni dee leen diisoo ak seeni soxna mm-hmm. waaye mu teg ca ni dee leen leen wor mm-hmm. loolu nag dégg la laaj leen diisoo ak soxna yi waaye dee leen leen wor xam nga lu tax yàlla wax loolu soxna si la yàlla booleel bu ngeen diisoowee di waxtaan dina am lu mu xam ci yow am lum ca yokk Mm-hmm. waaye yàlla ni dee leen leen woon mu ni mu léeg-léeg ngay dugg ci dara laaj ci jigéen xalaat bu la joxee xalaatam ba xalaatam ba mu yegg intérêt moo cay jiitu mm-hmm. loolu moom jigéen ñëpp la ko yàlla bindee sax daanaka mm-hmm. bi yàllay wax loolu jigéen ñëpp la généraliser parce que jigéen ñëpp la la ko yàlla bindee léeg-léeg même sa yaay sax dala ciy dal léeg-léeg sa yaay ngay dugg ci dara laaj ko ci xalaat mais bu waxee ba yeggal moom intérêt da cay ne parce que dinañu dugal intérêt boo xam ne pour doom ji maam dañuy dugal boo xamante ni pour doom ji ci jëmmi boppam mucc maam du doon intérêt intérêt doomam la mooy intérêt ma jox la benn exemple xam naa jigéen ñu bari duñ ci d'accord sax tey ji ma doon takk ñaareel di ko woo sa aawo naan di ko ci laaj xalaat la bu ko def de du loox bu ko def xamalum la ya dana naan waaw man kat damaa yaakaar ne wax dëgg yàlla war nga koo mën a def moom nag am nga droit takk ñeenti jabar waaye xam nga situation bi fi mu toll yaa ngi nii sa kër gi pareegul yaa ngi nii yaa ngi war a tabax fii aveniru xale yi doo xool sa aveniru doom yi ah nga wut nangam wut nangam jéem a de gis nga léegi da lay indil yoo xam ni pour yan la ko yow mais loolu ko de li ko ñor ñaareel bi bañ a am moom lool doo nga ko intéressé loolooy intérêt bi looloo tax yàlla ni shaawiru hunna waaye watu xaalifu hunna dee leen diis waaye suñu waxee ba yeggal seet leen la gën a rafet ngeen def ko moo tax ma la ak ak ak ak lu mën a xew góor dafa moo tax man la sénégalais rek mooy takk soxna ba pare moo boo leen gisee doo jàpp ni dañuy sëy ñun fii Sénégal yow di sëriñ xaw ma ndax yéen dina leen dal mais dangay ngay dugg ci kër fekk boroom kër gi toog ak soxnaam doo xam ba xam ay ak couple lañ te couple lañ mais da nga leen fekk nekk ndar kii nekk ndakaaru kenn ci téléphone am kenn di zappe ci télé mbaa mu gàddu journalam léegi nag communication bi war a te loolu góor góor moo war a woyof ngeen baal ma nag ci li bëgg a wax nii ñaar olof daf koy wax te di ko jaawale gis nga mooy jogi mais jigéen mooy mokk poñ joñe góor la war mais mokk poñ jigéen la war xam nga luy joge góor sa soxna ci waañ wi mu ñàkk tooy xep nga egsi di raay sa biir yoo xeetu xiif bi ma xiif tey ku ne mën na maa invité waaye dama dul lekk loo toggul mm-hmm. yow dañ fi nekk keneen di toggul xalaatuma lekk loo toggul waa xoola ni nga ñaqee waxuma mm-hmm. dara mais sa togg ku ko lekk dem aljana gis nga bu lakkoon ci loxo sax du ko yëg mm-hmm. bu lakkoon ci loxo sax laa wax du ko yëg daj na coono sonn na def na lu nekk gis nga benn bouquet fleur wala benn kaasu jus wala benn montre wala benn takkaay bu ndaw boo jënd indi bàyyi mu sonn ci añ bi wala reer ba pare nga jox ko ko cadeau ni ko non tey dama lay décorer waxuma coono bi mais li nga togg neex donte sax neexul. la góor mooy jonge jigéen mooy bokk pooju jigéen mooy bu ne jàkk boroom këram xam li nekk ci moom. mooy sa jëkkër su su su xiifee nga xam su maree nga xam su sonnee nga xam su taay su su amee problème nga xam su nekkee ci naqar nga xam danga koy xool rek xam li nekk ci moom malheureusement ñun li ñu jàppee ak mokk fii ci réew mi moom mooy jonge mooy euh, xaw loo fanaa nekk sa boroom kër boo xëyee nettali nekk ci seen groupe whatsapp bi waaye kaay leen ma kaaleen leen samoro bi naan xew mu naan ay démb maag sa waay xoola sa boroom yàlla ni la hmm. dugg leen ci néeg fay leen làmp bi tëj leen hmm. bunt bi ngeen ànd te yàlla tax yow nga xëy dugg ci groupe whatsapp yaa say moroom hmm. di maag moom démb ya laa ilaha démb bi ma ko jàppee bi ma bi ma ko liyee ñun loolu lañ jàppee joxe de or dof la dof parce que li nga lépp nekke te kenn nettaliwul ngay nettali yaa ngi nettali yëpp liñ mooy xaw takk sa ndigg gi ay ndigg li ay per muy kajang kajangi fu ne nga di fa fa ñaari baat ñett yu ñu nga wax wax bu vulgaire boo xamante ni ñu naan cey diw nga jàpp ni da danga fekk da ëppal waaw kii dafa ëppal kii dafa dof ñun ñaar ñooñu la ñuy ko tuddee mokk pooj ak jonge mais mm-hmm. mokk pooj jigéen jonge na góor la war mm-hmm. moom la moom la wax galantine ñun moom lañ naan mais loolu mooy jonge dafa galaan loolu mooy joŋe gi sa soxna si ngay àndal ngeen mu war dugg ci oto bi xam nga léeg-léeg nga gis tubaab di ko def te loolu loolu yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko jàngale mm-hmm. musa sallallahu dem na kër Omar ibnul Xataab di ko seeti Omar feebar Moustapha dem fa ànd ak Xafsatu bi mu ànd ak Xafsa mm-hmm. seeti Seydina Omar bay wàññeeku mu xiir melax gi ni xay asamaan si commencé toq ay ndox sallallahu alayhi wa sallam daal ne Xafsa taxawal sa taxaw rasulullah sëgg ci suuf ni ko yéegal Xafsa ni ko lan hmm. mu ni ko yéegal ma boot la Xafsa ni ko sa digg ginnaaw gi mu ni ko yégal yéegal sa tu yéeg Moustapha boot ko ba mu dëgër rek dëgg ay tànk yu hmm. dëgër di waaxu bi mu demee bay hmm. romb peggu kaaba gi melax gi ne xay yahood yi seen ko dañ ne waa keedu seen yonent bi jigéen de la boot yàlla dugal wax ji ci nopp rasulillahi Moustapha wàññeeku ba ñoom fi ñu nekk mu taxaw wàcce xafsatu mu wàcc mu jël niitukaay bi nit ko ni leen kii kan la ñu ne xafsatu mu ni manakan ñu ni ko yow mu Muhammad ibnu Abdallah mu ni samalan la ñu ni ko sa soxna mu sëggaat ni xafsa yéegal ni safara rek la dawal moo tax ma def li bi mu yeggee ñu ne xafsatu wàccal xafsa daa lànk wàccal xafsatu ni ko maa bañ mu ni ko lu tax doo wàcc mu tëddëg ni mu mel xalaatuma wàcc mu safaani ko gir yaay boroom heure boo ci bëggee yéeg ma yéegal Eh, mm-hmm. yow sa soxna da ngeen di ànd ci oto bi war a dem maanaam wiiri ubbil ko buntu bi rek yow pour yow ñàkk fayda la mm-hmm. téyel ko saaga mu dugg ci oto bi rek pour yow ñàkk fayda la mm-hmm. mu wàcc yor ay ba ko yenn yéegalal ko pour yow ñàkk fayda muy defar lu daal dàllam wala di ñaw lu ca téyër ba nga jaar fa jëlal ko ñaw bi pour yow ñàkk fayda la yooyu pour yow doyadi la te Moustapha daan boot ay soxnaam di tingoom ay soxnaam te yow nee nga moom nga yaakaar di bëri ak moom di dàqe ak ñoom di kaf ak ñoom ci kër gi nit daan na ñëw ni góor gi laay seet ñu ni la ma nga nee fekk muy langa buri na ak ay soxna mooy jël benn mor sa takk ko denc ko di ko wër ku ko njëkk a gis dàq ñu ci des te mooy sangu àdduna ak mm-hmm. loolu lañ maanaam mooy jonge rek ci gàttal Hmm. mais nag ça dépend ci ki nga ki la yàlla booleel parce que am na koo xam ki la yàlla booleel moom boo ko bootee dootoo ko nit ñi <laughs> maanaam ñëpp li moom booy boot da boot koo xam ni boo ko boo ko waxee dara la ci fekk am na ñoo xam leen boot di nga wuti fasu ndigg baa was fasu loos ci gàttal soxna Fatou si loolu moo nekk sa sa sa sa sa tontu hmm. eh, laaj bi nga doon laaj maanaam yërmande gi moom dafa war góor ala kulli macha allah oustaz ah xam naa bu ñu ko toppee rek <laughs> comme li ma waxoon rek dinañu dinañu dinañu continuer ba ba daanaka bët set te daanaka instant yi moom xaabaabal nañu xaw xaw na nañoo sof ci liñ ñu mayoon sax xam naa ñu jox la kàddu nga nuyu ñu waaye maanaam ta kàddu tàggoo daal ko defee incha allah xam ñu ñu a amaat beneen jotaay incha allah ko alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi leen di ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax macha allah di bég bu baax a baax ci partager ak yéen jatay bu tedd rawatina yéen ñi xam ne yéen lañ ñaan yàlla rek moo xoon ci njëlbeen lu ci rafet rek yàlla na ko yàlla def yiw amiin ko ci at ci dëng ba baa ñaaw ci ñun suñu borom di ko jël jaamu yàlla yu ko dégg di ñaan yàlla mu def ko yiw sot ko ci àdduna bi ziar bu baax a sumu sang bu tedd boobu bu Sëriñ Ahmad si ñaanal ko bu baax a baax dëgëral ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo xam bëgg-bëgg yëpp yàlla na ko yàlla defal liggéey bii nga xam moom lay def di ko def ci xadara maamam Maalik radiyallahu anhu di ko defal maamam rasulillahi yàlla na ko ci yàlla defal ndam lu kawee ju jortam yéen ñi ci ànd ak moom it yàlla sàmm leen bu baax soxna yi ci nekk yëpp it yàlla téyel leen boppam yàlla lu ñu mën a am yàlla lu ñu mën a ñàkkit yàlla nañu am yàlla yàlla bu ñu denc di jubóo jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa bu ñu génn ci képp di ahmada tijaani sharif il faatih waaye yàlla radiyallahu anhu